ko suñu euh, nuyu njabootu maam Ahmadou Ndack yëpp euh, Baye Serigne Ndiaga Makhtar Seck euh, di ko ñaanal gudd fan ak wér nuyu Baye Serigne Abdou Rahim Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér nuyu Baye Serigne Assane di ko ñaanal gudd fan ak wér ak Baye Serigne ñaaxa ak njaboot gi nga xam ne macha allah ki ci mag mooy soxna Nogay Mbay sekk suñu bàjjan mu yóbbaaleel ñu géew ñëpp ak sët yi Serigne Jibrilu Seck la ñuy jël nuyoo boobu teg ko ci loxoom mu yóbbaaleel ñu géew sët yi ci des ak njabootu der deret gi ak njabootu leer gi fàttewuñu kenn euh, di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñu jàkkaar lool euh, di sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte nag toog fii ci saalu kër gu mag euh, toog ci saalu kër gu mag ngir benn événement événement boo xam ni yow miy seetaan soo ko déggee mbégte rek nga moo lay animé muy lan muy daara soppe maam Ahmadou Ndack Seck Telegram bi nga xamee ni macha allah buñ ko tuddee rek képp ku dëkk ca ba di nga am fierté Euh, ci liggéey bu rëy bi nga xamee ni macha allah ñu ngi koy liggéey euh, ci biir Thiénaba euh, macha allah ñoom nag ñoo war a indi sukkaru koor indil ko le xalif général Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck waaye nag profité waale ci sukkaru koor gi di def lancement boo xam ni lancement mbégte la muy lancement Samsu TV. Samsu TV nekk produit boo xam ni ñoom waa daara maam Ahmadou Ndack Seck ñoom ñoo ko ubbi macha allah ñu indi nag def lancement bi fii ci kër gu mag def ko ci suuful canam ba waaye def ko ci kanamu Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck balaa loolu nag njaboot gi ñoom ñoo toog nii représenté ñi nga xamee ni ñu ngi ci biir réew mi wala ñu nekk ci biir diaspora bi ñu leen di de passage ñuy nuyu ñi nga xamee ni ñoo nekk bitim réew te jàpp ci liggéey bi bu baax bu ñu duggee ci waxtaan bi yooyu yëpp dina leer Euh, macha allah waaye dañoo toog kenn koo xam ni euh, bu ñu tuddee ba tamit euh, tudd aw turam macha allah dina indi ay mbégte yu bari muy kan muy El Hadj Pape mi nga xamee ni moom la xalif général Baye Cheikh Ahmed yeesal ginnaaw bi nga xamee ni xalifa yi fi jaar ci histoire bu ñu ko jàngatee dina leer yëkkati nañ téere Ibnu Mohib bi nga xam ne mooy téere gàmmu ba teg ko ci loxoom mu koy taxaw taxawa yu am solo di ko ñaanal gudd fan ak weer ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam El Hadj Pape la ñuy dëkk micro mu mel ni dafa nekk nag première micro bi ñu yëkkati muy Samsu euh, TV dékk ko El Hadj Pape Mor waaye nag wat ca watit ndax Thiénaba TV gii yaakaar naa ni moom bokkoon na ci euh, loolu tamit amoon na ci moom El su ma juumul ci histoire histoire répété wu na histoire dañuy wax ni histoire dafay répété wu euh, kon yàlla na yàlla def ngëneel yàlla yàlla def mbégte El Hadj lay jox kàddu gi nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñuy jàkkaarloo ñu bokk mbégte mi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Jàmme ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne fa tabarakallahu ñi ngi fi di nuyu euh, El Mar di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci euh, groupe bi di telegram euh, du noonu lañ koy waxee di ziar nag ñëpp di leen ndokkeel ci weeru koor wi ziar bi ak nuyo bi yëpp nag ñu teg ko ci loxo suñu kilifa ñun ñëpp di sëriñ Canaba sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifatul am li taifati Tidiane Canaba di ko ñaanal yàlla gudd fan di ko ñaanal wér di ko ñaanal sutura di ñaan yàlla lii nu fi dajale tey te mooy def ay teraanga ndax koor dimbalante lañu wax te su fekkee taalibe yi euh, fu ñu mën a nekk bu teyee groupe bi ñëw bu ëllëgee beneen groupe ñëw ndax xam nañ ne Serigne Thiénaba ci bopp mbooloo la nekk te luñ ko jox rek dafa lantinoor la du téye diw dafay delluwaat ci ñi nga xam ne dañuy ñëw fa tabaarakallahu di sàkku ndimbal euh, ak ñi nga xam ne ay jege ñaaleem lañu yoo xamante ni seen lépp dafa wekku ci moom kon moom itam nu koy ñaanal yàlla guddal aw fanam di nuyu euh, ñi nga xam ni yëpp ñooy dereti maam Ahmadou Ndak ñi nga ñi nga tuddoon léegi di suñu baay Makhtar Seck di suñu baay Abdourahim di suñu baay Ñaaxa di suñu euh, baay Assane Seck barki démb rek laa jóge ci moom ci Thiénaba Gossas fa tabarakallah ñu waxtaan waxtaan wu am solo di nuyu itam sama bàjjan Nogay Mbay Seck di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wér di nuyu dereti maam Ahmadou Ndak Seck yëpp fa tabarakallahu di wax ni lii lu am solo la lu am am am solo la alaaji maar dajale ay nit fexe ba euh, démb rek maa ngi déglu benn kilifa ku am xam-xam muy wax ne bu fekkee da ngaa bëgg a sarxe téeméer te amoo téeméer dërëm nga am fexeel ba am ñoo associé ba téeméer bi mat su ko defee ngeen sarxe téeméer kenn ku nekk dafa participer xam nga pour téeméer mais kenn ku ne yiwu téeméer lay am fi mu ne li ngeen dajale nii ba indil ko Baye Cheikh tey kenn ku nekk du am limu li mu joxe limu li ngeen am somme totale bi la kenn ku nekk ci yéen di am kon loolu lu am solo la Euh, Shamsul Huda nag euh, Shamsu TV euh, léegi laay tooñ ma ni dinaa leen jox indi indicative du lañ koy waxee ah non mooy loo xam ne booy ubbi moom ngay ubbee waaw ndax loolu nag dafa mel ni lu feeñ la parce que shams mooy mooy firi jant shams mooy lu ni fàng bokk jant bi bi mu feeñee ni fàng moo tax ñu ne achamsu ba léegi lépp lu ñu bëgg mu feeñ ni fànn sax dañ koy duppee jant bi achams moo tax euh, sunu maam ci ci ci ci yàllaaw bi hmm? ci yàllaaw bi maam Mor ci yàllaaw bi bi mu koy bind chamsul huda amatil afaq chamsul huda booba mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi way tarix mi ngi kañ tarixa bi mu ne chamsul huda la jantub jantub njub boo xam ne amatil afaq fees daj na gox yëpp kon loolu nekkoon ci biir baatin boobu itam yàlla na nekk ci Shamsul euh, Shamsu TV nekk itam ci Thiénaba TV nga xam dañuy dem ba goxi àdduna bi yëpp dañ koy xam muy ñu nekk ay télévision yoo xam ni yu international lañu parce que loolu su amee rek euh, ñun ñooy jotliku Thiénaba mooy jotliku Thiénaba mooy feeñ kon noo ngi sant yàlla bu baax euh, di am it ci ci ci jëkk gi ñu jëkk a wax Euh, ci ci ci ci ci télévision bi loolu tam ñoo ngi ciy am mbégte parce que defe naa ni archive daf koy daal di noté histoire daf koy répété ba keroog àdduna du tukki te nekkul lu ñu organisé lu hasard indi la wante hasard boobu noo ngi ciy sant yàlla bu baax di ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla lii ñu dajale fii tey yàlla nañ fi dajawaat ay ati ati at ci barkeen bi sallallahu alayhi te bu ñu ñëwee nun ñëpp yàlla bu ci kenn manqué kii ñu fi fekk tey muy Serigne Cheikh yàlla na ko fi yàgg fekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo defee nag kon ñu barkeelu tuuti rek ci liñ ñu xamee alaaji Ousseynou Mbuub yàlla na yàlla dolli ay leeram yàlla dugal ko ci àjjana yi gën a kawe dafa daan wax ni ku wat ku wat sa pàq bañ la xamee ñu fakk la waaw maanaam lii tax ñu xam la ràññee la soo ko watee rek soo ko bàyyee rek dañ lay daal di fakk dootu ñu la xàmmee te ñun ñu ñu gën a xamee nag ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المشفع في المحشر ثم صل على محمد سيد البشر بل ما سبي وانزلا زب وانسلا ولا تبخي عن خير في متحولا واكرم به مغنى تحرى منزلا أحق عباد الله بالمجد والعلا نبي له أعلى جنان مبوء اللهم صل على محمد سيد وشفع المشفع نبي عظيم الخاطر بالحق مرسلا نبي عظيم الخاطر بالحق مرسلا يعل بمذكار طفلا وينهلا فلله من هو وأعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد مؤهل حبيب بأسرار القلوب منبأ على محمد عصبي وانسلا انت يا احمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخي عن خيفي متحولا محمد المصطفى أيوة أيوة أكرم بي مغنى تحراه منزلا أحق عباد الله بالمجد والعلا كن ينتل محمد نبي له أعلى الجنان مبوء كسب سيدنا محمد ندفني نمقلكو أيوة أيواي xamul kii نبي عظيم الخدري مساواة بالحق مرسلا يعل بي كان طفلا وينهل فلله منه وهو أعلى وأكمل صنبيا أمين لإرشاد العباد موحل كان ديانتي على محمد صنبيا حبيب لأسرار الخلاب منبوكي دينتي ديانتي على محمد فكم فاسد أضحى بي وهو صالح وكم باطل والله بي وهو تايح محمد عبد الله رسول لأسرار المنافق فادح سنبيا أبان الهدى أيواي فالحق أبل جوادح وثان الورى فالعيش هو المعنى كبق سيدنا محمد ندفني نمقلكو يا يا يا أليس الذي حاز المفاخر والعلا مستوى بما نص من أي الكتاب وما تلا سنوبي ونن وأن يدانا في المكان الذي اعتلى سوخم الكيمي وي أتم الورى جاها وأبهر مولا لو المدح يجلى والشفاءة تخبو كند سيدنا محمد بوخم الكيمي وي فكم فاسد أدحى به وهو صالح وكم باطل والله بي وهو تايح سوخم الكيمي وي رسول لأسرار المنافق فادح سنو أبان الهدى أيوة فالحق أبلج جوادح وسان الورى فالعيش هلو مهنو جكنو وينتي على محمد تدنو مجاوي ينتي على محمد ملائكة الرحمن خالت بفضله مصطفى وحنت كما حن الحبيب لوسليم سنوبيون حرام عليه نار خلب أحب مصطفى رسول كريم ما أساقت ربك ينتي على محمد أعد لأهوال الخيامة حبه وحسبي فلي منه ملاذ وملجأ كصب سيدنا محمد ندفني نمجلكو إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله يشكو بس قلبي وودعتك لبعد حبيب لم أشاقت بعده مستوى مناي من الدارين لقيا وحده يضيق نطاق الصبر عنه وبعده وهل يعرف الإضماء أمن يبتغي الرعال ختم الصنع طول الفراق بنصبي فصرنا نحب الموت ديخا بكربي فيا ليتنا متنا احتراما بحبه كن يسير علينا الموت في جنب قربي ومن خسد المحبوب لم يسأل البخيا ين يبنيلن فيا ربنا في أرضه وسمائه ينبي أمتنا على تصديقنا باستوائه فإنا وذو الأشواق يعيا بدائه ينتبه يشق علينا العيش دود لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كان الدنيا سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله مبوك تيليسبكتاتير ما شاء الله هادي وسيلتنا شمس الهدى عمت الافاق الله امين امين يا ابيك في البال آه، ونجله أحمد المختار حامل راية البسالة والإسلام الله آمين آمين يا كن كي شمس الهدى عمت الأفاخي الله شمس الهدى عمت الأفاخ ايوا شمس الهدى عمت الأفاخي الله آمين شمس الهدى عمت آه شمس الهدى عمت افاقي الله شمس Huda عمت الآفاق الله سيغ آدم انديكاتيف لا دون جوخ خالي سي شمس الهدى شمس تي في ماني لن شمس الهدى عمت الآفاق الله kon yalla yalla nangul nu ci barke yonte bi sallallahu alayhi wasallam dama ñew waxale ni suma sañon nek ak yeen ba ngeen joxe ba agal wante dafa fekkon dama dafa non day tel tay ma wara genn am ñu ne ma kon naa leen defal naa dugg daal def dara ñu enregistré ko bu ko defee mën koo boole ci ci li ñuy jël tey incha allah loo nga am mbégte bu baax jazakumullahu xeyran ah jërëjëf El Hadj Pape Mor Gueye macha kon ngeen déggee ko noonu rek mu nekk mbégte moo xam ni yàlla nañ ko partagé euh, partagé ko ak téléspectateur euh, yi ñuy déglu waaye partagé ko ak internet yi nga xamee ni euh, macha ñu ngi déglu tamit à travers Shamsu TV di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm ak xéewal ak sutura ci kanam tuuti dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen yoo xam ni fii lay xewee ci saalu kër gu mag. defoon sànq lu mu bëgg. waaw noonu la moom ay borom fay bi dañoo xagoon di nga tey. maa ngi déglu wàllu. waaw bi jël naa ko. yaa si. maa sonn rek. Euh, mbokk yi delluwaat jaajëfal leen macha allah yéen ñi ànd ak waa Thiénaba TV euh, beneen wàll wi tamit ñi ànd ak Samsu TV euh, ñu ngi leen di jaajëfal di leen ziar di delluwaat rek di partager ak yéen mbégte bi nga xamee ni muy mbégteem Seexu Thiénaba ñu ngi taxaw fii ci saalu kër gu mag muy saalu Seexu Thiénaba saalu Seexu Thiénaba moom bu ñu fi taxawee li fiy jub rek lenn la. mooy la maam doon jubal démb ak barki démb euh, muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, ñu taxaw nag kenn koo xam ni euh, maanaam jàmbaar la ci barab boobu jàmbaar la ci loolu ñu tudd muy sikkar baatu laa ilaha illallah wala tagg Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam muy xam muy Mouhamed Bachir Mbuub Mouhamed Bachir Mbuub di doom ci El Hadji Ousseynou Mbuub yàlla na yàlla yokk ay leeram ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye nga topp ko ba ca maam Ngusaan maa jooja Mbuub Euh, maam Ngusaan boo ko tuddee rek sa xel dem ci maam Momar Talla Seck ndax moom ñoom ñaar la yàlla booleeloon ñu liggéey liggéey bu rëy ci biir kër gi euh, Mouhamed Bachir moomu nag euh, la ñu bëgg a jox kàddu gi bala moo yëkkati dara mu dugal ñaari kàddu kàddu yu mbégteem lay feeñal rek ci li nga xamee ni ñu ngi koy sos muy Samsus TV ak li nga xamee ni sukkaru koor bi jóge ci daara yi soppee maam Ahmadou Ndak télégramme wala ñëw ci Cheikhou Thiénaba Mouhamed ñu ngi lay jaajëfal jaajëf Serigne Moussa Ndiamé Gueye ñu ngi wax asalaamaaleykum aleykum rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooleem koo xam ni yaa ngi ci salle bi bokk ak ñun jotaay bi di ànd ak ñun ci Samsu TV ak Canaba TV di nuyu ñëpp di ziar ginnaaw bu ñu jiitalee Baye Cheikh Ahmed Tidiane yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu ngi nuyu waa Telegram daaray maam Ahmadou Ndak Seck di leen jaajëfal te di am mbégte lool jàkkaarloog seen xar kanam yi nga xam ni atum yàlla ñuy déggante ba tey jot ñu daje ci benn sal yóbbaale ñi nga xam ni ñoo munta teew ñu ngi ñaan daje bi yàlla bu mu doon suñu mujjug daje barke Seydil Wujud wa alamu shuhud sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati kàddu yu gàtt rek comme niñ ko daan yëkkatee ci biir groupe bi muy kàddu mbégte lañ ko mën a tudde wala soññee lañ ko mën a tudde wala wax suñu yëg-yëg bu dee bu dee dinañ ko mën maanaam mbir bu fekkee mi ngi dox njàmme te saa yoo dajeeg ñi nga ko bokkal nga gis yokkate ca mbir ma boo ngeen dajee baatu alhamdulilahi rabil alamin war naa jib waaye am na beneen baat bu war a jib mooy gën a yaatal gën a xamal nit ñi liggéey bi nga xam ne ci la ñuy ne di ci dox guddi ak bëccëg amul tànki ginnaaw ndax dañoo jël jënn jëmm rek teg ko ci suñu kanam muy maam Serigne Thiénaba maam Ahmadou Ndak Seck kon ñu ngi wax képp koo xam ne yaa ngi seetaan Shamsu TV ñu ngi lay tàllal suñu loxo di la ñaan boo jotee ci suñu message bi nga xam ne liggéey bii liggéey la boo xam ni génnul liggéeyal yàlla suñu borom ndax moom amoon dag lépp lu mu amoon dégg nañ ko ci suñuy waxtaankat lépp lu mu amoon bana ko dëdmal boromam kon képp koo xam ni nii yaa ngi seeraan suñu kàddu gi na la wóor ni ay taalibeem tànk seen tànk foofu rek lañ ko jéem a teg donte jotewuñ tànkam ba waaye fu mu teggee tànk rek ñu fas yéene faa suñu bos lépp loo xam ne amoon yalla mi ko ko mayon mi ngi fi te jogu fi te inshallah allah nam ko ko mayon mënoon na koo man na maye kep ko xamni ni yaa aw ci tank yoy ñu ngi talal loxo ñep kep ko xam dal deeng suñu kaddu nga ñew jappale ñu ci liggey bobu wala jappale sa bop ci damay faral di deg ñu wax benn bat dina tew barap sangam ngir sagal fa suñu mam wala na tew benn barap sangam ngir sagal fa ba mais Thiénaba dépassé na fuñ koy sagalé nit ñi ñoo wara ñew ngir sago ci mom man sama bop la ko nat amul lenn lu ma mën a jariñ Thiénaba loo xam ne dama koy sagale mais man lépp bépp jéego bu ma yëkkati rek li ma gëm mooy maa ci sagoo ndax booba ak léegi yokkute rek laa gis ci sama bopp kon maa ngi ciy tàllal loxo ñëpp di wax ni képp ku duggit sa bopp nga dugal loolu mooy kàddu yi nga xam ni moom laa doon ci doon jiital incha allahu taala jaam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah mu nekk kàddu yoo xam ni kàddu yu am solo la waaye ñu mën cee jàngat tamit euh, ak yokk ak dolleeku macha allah euh, kon yàlla yàlla yokk yàlla na yàlla gën a yokk ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Mohamed Bachir lan nga ñuy ñamal ci bu gàtt rek ñu barkeeloo. allahumma salli ala muhammadin seydil bachari wa shafii al mustafa fi lmachari na ko ñëpp aw. seydil bachari. koor gi jàpp kenn soo nekk ak bismillah. شفيع المصطفى بالمعشر اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المصطفى في المعشر سيد البشر شفيع المصطفى في المعاشر تبارك رب العام منا بعبائه تبارك رب العام منا بعبائه واهدى إلينا رحمة من سمائه رسولا شفى أدواء أنا بدوائه خير جزائه فآثاروا أنوارها تتبلج اللهم صل على محمد سيد البشر وسبع المصطفى في المعاصر هو طاهر المختار من كل طاهر من كل طاهر ينسيك منه أو ولن فضل آخر أتى بكتاب ليس من قول شاهر جلا صدى الإشراك عن كل ناذر فللحق فيها من هج ليس ينهج اللهم صل على محمد سيد البشر وسبع المصطفى في المعسر تأخر بغصا وفلا مقدم تأخر بغصا وفلا مقدم من الأب أخدابا من الخيس أكرم من الأب أخنام الأول من الأم أرحم جميل جليل في القلوب مؤثم به الأرض تسوى البرية تبهج على محمد سيد البزر وسبع المصطفى بالمصر له الهدي وسمته الذي دل فضله له الهدي وسمته الذي دل فضله على أنه حب الإله وحله عظيم خير الذي خير كله جذيل لا يخشى تذله فلا مخبود ولا الباب مرتجو صلي صل على محمد سيد البزر وزفع المصطفى في المعصر بشارته موجودة قبل خلقه بشارته موجودة قبل خلقه ولا خلق داكن وهو بعد خلقه رؤوف إذا أروى زمان برفقه جواد إذا دن الغمام بورقه ففي كفه بهر ندى يتموج اللهم صل على محمد سيد البزر وسبع المصطفى في المعاصر فدونك فاقصده هوا ومحبة فدونك فاقصده هوا ومحبة وفي طيبة مريض لتارك حسبة وخصبك أن تسعى لمكة خربة سبير وأخد أكرم الأرض تربة مهاجر هذا وذلك مبعث mbokk yi delluwaat jaajëfal leen ah, yéen ñi ànd ak waa Thiénaba TV ah, ci jamono yooyu la ñu seen xalif général Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ah, di dugg ci si salle bi fekk ñu yëkkati téere bi nga xamee ni moom la maamoom tànnoon muy maam Ahmadou Ndak Seck kon Baye Cheikh dugg si na waaye gàttandu na ko euh, sëriñ Adama Seck mu baay taal xaar waaye gunge na ko Baye góor a Seck euh, ak euh, président fédération sëriñ Souleymane ak borom yaaram noonu la Baye Cheikh dugg see fii nga xamee ni macha allah mooy salle bi waaye ñëw. Euh, fekk fi euh, ñi nga xamee ni macha allah ñooy jàmbaar yi euh, maam ahmadou ndak sek muy daara soppe maam ahmadou ndak ci suukaru koor gi nga xamee ni moom la ñu war a andil cheikhu canaba waaye ci lancement boo xam ni war nañ lancé samsu tv mu nekk télévision en ligne boo xam ni macha allah bu bees la waaye fekk si fi eh, ki nga xam ne mooy Thiénaba TV point com eh, ci kanam tuuti dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen yoo xam ne fii lay xewee ci salle bi waaye di jaajëfal eh, suñu mbokk yi nga xamee ne ñoo nekkee ci diaspora bi di mbokk taalibe waa Thiénaba ci liggéey bu rëy bi nga xamee ni macha allah ñu ngi koy liggéey ci pencim Thiénaba damay delluwaat rek wax jaajëf maam Ahmadou Ndak jërëjëf maam Ahmadou ndaak Seck jërëjëf maam Ahmadou ndaak Seck yàlla na jàmm yàgg kon ci kanam tuuti ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen yoo xam ne fii lay xewee ci salle bi لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر وسبع المصطفى fanweer ak kaan ba si Ahmada Tijaani bàyyi lewet na domm sikk muuri am na fulaame wayof na tollu diis na gan na am salaam bay Seex Seydi Ahmada Tijaani bay toroxlu gaa tax ba ku ñëw ci moom ni day ziyaar si boo watul jaawale ko ña koy ziyaar bay seex seydi ahmada tijaani xalifa bi billaahi ubul buntam ba ku ñëw ñu naan ko toogal te ñu ubbi fekk mu toog di xaar bay seex seydi ahmada tijaani toroxlu gaa ba ku ñëw ci moom ni day siyaar si boo watul jaawale ko ña koy siyaar ba si Ahmada Tijaani xalifa bi mooy sëtu maam Amari Ngoone Ndaak ma xeexi woon ca Samba Seexu Amadoo ko woon maam Amari Ngoone Ndaak muy ji bàyyi lépp lum amon ba woon di soxna ba alal njabot yombul woon maam amari ngoone ndaag ci la sax dak ba xey wi ji boroom takkam laab sëdëm bay seex tijaan di fop mi khalifa te fess ko del ak melokan ba ginaaw ju ba ju tax mu leer nañ melni ba si Ahmada Tijaani ginnaaw ju doom ba sekk ji ji moo koloore ju doom ba tax mu leer nañ mel ni weer ba si Ahmada Tijaani ci alxuraan la jiitoo képp kum lerool di daw ca lef ga ca kum ko jàngandool ba si Ahmada Tijaani naa yam ko fii ma muuri nguune ma ca ndóob taxaw te dem ba del waat waxaat ci moom lu ngeen diggam ji ay siwaat ah, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla di julli sedina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziara te di la ñaanal yàlla na yàlla guddal sa fan te nga yàgg fi te wér ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa euh, tey nag ñu ngi fii ci saalu kër gu mag ci wetu Baye Cheikh ba Baye Cheikh Ahmed Tidiane li waral loolu mooy daara soppe maam Ahmadou Ndak Seck ñoom ñoo àndandoo comme niñ ko daan defee rek ñëw ci seen kanamu xalifa andil ko suukaru koor ak beneen leneen loo xam ni tamit làmbu na ci jataay bi muy lancement boo xam ni dañoo sos benn télévision en ligne bu bees ñu tuddee ko Samsu TV ñu war a ñëw nag xalifa bi ñaanal leen ci dolli ko ci ñaan yi nga xamee ni moom la jiitaloon bu ko defee mu barkeel euh, yàlla yàlla nangu tamit li nga xamee ni yéene bi nga xamee ni moom lañ ci am loolu rek laa doon ubbee man seenu kubbuteef ñoom waa daara soppee maam Ahmadou Ndack Mouhamed Bachir Mbuub moom moo ko yore euh, moom la ñuy ñaan kon mu jóg ubbil leen jataay bi euh, bu ko defee man li ma doon def rek mooy ubbil Thiénaba TV ubbil tamit Samsu TV bi rakkam euh, bu ko defee ñu bokk mbégte bi ak téléspectateurs yi nga xamee ni ñoo jàkkaarlook ñun waaye loolu tamit ñu ngi ziara mbokk yi nga xamee ni ñu ngi ñuy seetaan ci biir réew mi wala ñu ñuy seetaan ci bitim réew muy internautes yi ak téléspectateurs yi nga xamé ni machallah ñu ngi béggee Thiénaba TV euh, di leen ziaré bu baax di leen ñaanal di wax ni lu ñaan tamit yalla nako yalla nangu ci barke sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waye ci jotaay bi tamit tew na fi suñu yaay muy ànd ak soxna maget Fall wa keur Mamour pie ño ñëw don andi sukaru koor andil ko Baye Cheikh Ahmed Tidiane moy soxna yi tok di suñu yaay soxna Caba jang ànd ak euh, waa Mamour comme niñ ko daan defee Euh, macha allah ñëw gunge leen euh, soxna Ndak Fall maam Ndak Fall ñu gën koo xam ci yaa Maguette Fall euh, ñëw gunge leen ci kanamu mbooloo mi ñoom tamit ñu ñëw dajeek waa Daara soppe maam Ahmadou Ndak ñëw muy sotti ci ak def ci ñu leen di jaajëfal bu baax a baax kon di jël kàddu gi di ko jox Mouhamed Bachir. wa rahmatullahi ñoo ngi jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi suñu sëriñ bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di nuyu nag mbooleem koo xam ni yaa ngi toog ci salle bi bu ñu tuddee Cheikh Ahmed Tidiane rek kenn génnatul ndax moo njaboote mbooleem ku nekk ci salle bi wala mbooleem ku nekk ci dëkk bi ñuy def benn liggéey bu gàtt boo xam ni euh, ki nga xam ni mooy coordinateur di Serigne Mar Diop moo ñu ko sant yëkkati ay kàddu yoo xam ngir mu dugg ci nopp suñu kilifa gi Baye Ahmad Tidiane mu dégg ko bu ko defee muy ak soññe ci mboolem koo xam ne yaa ngi bokk ci liggéey bi nga xam ñoo fi teew tey ci salle bi ginnaaw bu ñu nuyoo bu baax Serigne Mar Diop nga xam ne coordinateur groupe bi di ci liggéey liggéey bu am solo defe naa ku mel ni Serigne Modou Sarr bu jëlee dina yaatal ruq yooyu waaye ñu wax ni rek tudd yenn dëkk yi nga xam ni mi ngi ci suñu xel ndax xaw na ñoo bett ci kàddu gi waaye fu mel ni na ba Fass Kofe ay jàmbaar yu mag nekk fa buñ fi tuddee trésorier bi di sëriñ Papa Ndiaye defe naa dina doy ak sëriñ Marème Seck mi nga xam ne ci info bi la bokk waa Lougaloo ñi ngi ci biir daara ji am ci ay taxawaay yu mag yu am solo dañ ci tudd Bintu Rasul Silla ndax barki Dembo njaay rek dégg nañ euh, émission bu am solo bi nga xam ne jeexal na ko waye ñu tudd ko xamni dañ ko warona jital ginnaw Mar job muy serigne Adama sek mu bay serigne ndax ci kilifa la ci ñun ba pare nek ci groupe bi am ci rôle bu mag bo xamni muy walu xam-xam di ñu ko jox ci joxin wo xamni heure bu jeexalee émission li def contribution ci bir groupe bi da ngay xamni ni am nañu mbégte ci émission suñu kilifa gi di serigne Adama sek ñu ngi koy seedeel Baye Cheikh Tidiane mu doli ñu ko ñaan xam-xamam yalla na yalla yok ko barke Seydina Muhammad waa cana ba geti rat ñoom Ousseynou Fall sopp nabi bi Ndaw Fall buñ tuddee dëkk buñ dem buñ fa tudd bëggee tudd ñëpp rek dinañ fi yàgg waaye na ba gétti ran ñëpp defe naa ñi ngi ci biir groupe bi cana ba ngeej ji Jóob ñoom soxna Awa Jóob ak soxna Mbacci Jóob ñoom ñëpp ñi ngi ci biir groupe bi waa na ba jaayan sëriñ Modou Saara ngi nii ak ñim ko bokkal ñëpp ñi ngi toog defe naa am na dëkk yoo xam ni sax yàlla dogal na mi ngi woon ci sama xel suñu ma teeloon a jox kàddu gi damay bind list tudd ñëpp mais telegram bi mom ak doxalinam wax deug yalla bu fekkon dañu tuddu Mar Diop ñëw seppi suñu serigne bi serigne Adama sek tuddu ko dina doy ñepp te liñ li ci am solo rek moy ba Cheikh Tidiane xamni fepp fo xamni talib mom amul ndax sek nga fa rek amna ca membre yo xamni bokku ci biir telegram bi ba Cheikh nak joxewon na fi message bu am solo moy na ñepp dem intégrer ci biir daara yi mom amul ndax sek telegram liko waral nak moy jëflante nañu ba mu xam ni ñii ay taalibe kese lañu liggéeyal ma Oumar Ndak rek moo leen tax a jóg kon nag ñooñu ñu jot a tudd ñu ngi yam foofu di ñaan ki ku déggul sa turu dëkkit nga xam ne yaa ci biir daara ji te daara ji làmb na fépp fu taalib Oumar Ndak sekk ne dinañ dem biir tudd ki nga xam ne moo di Serigne Maxet Cisse di ko jàmbaare moom tamit ci biir kër gi bokk ci ñi yor wàllu info bi moom it mënuñu koo bañ a ku mel ni aussi euh, sama Serigne bi sant Dieng mi ngi ci biir jotaay bi di bokk ci magum groupe bi moom mënuñu ko bañ a tudd Baye Mor jeng nga xam ne dañuy déggante lu bari moom sama soppe la sama xarit la ku mel ni Baye murtada ja di borom xam-xam yi nga xam ni luy ñuy sotti njariñ lañ comme ni ma ko waxee léegi ci Serigne Adama sek moom it bokk na ci kilifa yi nga xam ni jëmmal nañ daara ji dooleel nañ daara ji ci wàllu xam-xam ci wàllu xalaat ci wàllu lépp donc kon daanaka su fekkee tënk naa ko fii Cheikh Tidiane Ndaw a ngi nii toog ci tàggat yonent bi Mouhamed Bachir bu moo yor micro bi jàkkaarloog yéen daara ji nag bu bëri na ay tàggatu yonent bi yoo xam ne nii ci la ñu bokk bëri na ay tàggatu yonent bi yoo xam ne ñoom ci daara ji la ñu bokk kon nag waat ñi nga xam ne ñooy tagg yonent bi ñëpp génn waat ñi nga xam ne ñooy tagg yonent bi ñëpp ñi ngi leen di ñaanal ñu yokkaat seen i taxawaay ci biir daara ji parce que daara ji dafa bëri ay membre mais liñ ciy dégg taggkatu yonent bi mu yëkkati ay kàddu bëriwul kon ñi ngi soññaat ñëpp sama bopp laa koy commencé ñu góorgóorluwaat bu baax ci biir daara ji ndax cena ba moom tagg yonent bi dafa dafa dafa dafa seey ci biir kon groupe bu toll nii ñu soxla ñu ci ñun toujours ñi ngi ñaan rek nu gaa yi gën a góor góorgóorloo sëriñ Alpha Seck sama sëriñ mi ma koy fàttali léegi di moom tamit di jàmbaar la ci biir kër gi di njaboot ci Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck mooy créateur groupe bi te booba WhatsApp la créé woon WhatsApp bi dox ba egsi Telegram ba léegi yokkatul mu ngi ci ànd ak ñun ci liggéey bi sëriñ bi nee na ñu préciser bu baax ci moom incha allah bu sëriñ Modou Sarr jëlee dina gën a leer ak itam Serigne Maodo aadama bokk ci njabootu góor gi ba pare bokk ci biir daara ji def boppam it moom it ab taalibe comme ni ko Serigne si defee. kon tamit daanaka ñun amatuñu droit ndegam suñu kilifa yooyu sant Seck di suñu sëriñ ñu yaakaar leen ñoo mel noonu ci daara ji amatul benn taalibe boo xam ni am nga droit bañ a bokk ci daara bi def defe naa loolu amul te daara ji lu tax mu neex mooy daara ji maam Ahmadou Ndack sekk leen jël teg seen kanam ku déglu seen liggéey ku déglu seen waxtaan ku déglu seen da ngay xamni dal ñi wa kër ma amul ndax sék lool nak lu ko upp solo amul ñun bokku nañ ay groupe yu bari waye gëdd ji ñuy jox daara ji jox ñuko benen gëdd lool nak ab soññe la bo xamni groupe bi sax saa yu ma ci duggé dina soññe ndax xamna ndariñu daara ji loolu mo doon kàddu yi nga xamni mën na ko teunk ndax bét giñ ma bét kon defé na fu ma ku ma fàtte rek sa ñu jéggal mako te bu ma yoron kay duma ma kenn assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci kàddu yu am solo yoyu xamna ni li olof di wax rek ku lim mom di nga dessal Euh, macha allah waaye képp ku ñu tuddul saw tur euh, nga jàpp ni rek euh, ci boole nañ ko ci njabootu maam Ahmadou Ndak bu ko defee mu yóbbaale la géew di nuyu di jaajëfal ñëpp kon dañuy jël kàddu gi jox ko Modou Sarr bu ko defee muy yëkkati kàddu soppe daaray soppe maam Ahmadou Ndak waa fesal liggéey bi nga xamee ni moom la ñu def sëriñ Mouhamed Seck mu bàyyi sëriñ Souleymane Seck borom xaas mooy dugg si noonu di agsi Euh, ñu koy dalal di ko jox wàccuwaayam kon Mouhamed euh, Mouhamadou Sarr euh, ñu jox la kàddu gi nga fésal liggéey bi nga xamee ni moom la daara soppe ma wax nu naag doon liggéey bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi sayidina muhammadin saydil basari wa safxil musafaxi fil mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu musloo ci seytaane julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di leen nuyu nuyoo bi gën a sell te mooy nuyoo lislaam di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi suñu waajur suñu kilifa suñu sëriñ bay Cheikh Tidiane Seck di ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal njabootam gépp di ñaan yàlla lépp ànd ak sutura ak xéewal ñu delsiwaat fii tey ci loo xam ni jamono bu jot ñi ngi ànd ak loolu te mooy ñëw di si suñu kilifa bàyyi seex ci bu ñu ñëwee suñu jëmm ak bu ñu ñëwul ak suñu jëmm waaye tey sabab bi doon barkeelu bi nga xam ni dañ koy def weeru koor wu jot mooy li ñu amakus néew ñu indi suñu suukaru koor te mooy waa daara soppee maam Ahmadou Ndak Seck jébbal si ko baay Cheikh ndax moom moo wattu kër maam Ahmadou Ndax Seck lépp loo xam ne nii moo fiy ay ci kawam lay séwét kon jaadu na bu weer wi teroo lu mu néew néew ñu ñëw barkeelu ci moom ngir mu ñaanal ñu ngir liggéey bi ñuy liggéey gën a jëm kanam liggéey bi nag du lenn lu dul liggéeyal maam Ahmadou Ndack Seck wala gën jëmmal liggéeyu maam Ahmadou Ndack Seck génn ko te loolu ku koy def allah kulli alin mënut a ñàkk lu dul que ni da jox loxo xalifa général te mooy Baye Cheikh Tidiane Seck waa daara ji Baye Cheikh ñu ngi lay nuyu. di la ziyaar di sàkku ci yow ñaan di la ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd di sàkku ci yow ñaan ci liggéey bi nga xam ni sumb nañu ko suñu boroom defal nu ci tawfiix ba fi ñu bëgg mu yegg fa muy egg fa waaye di sàkku ci yow ñaan nga ñaanal ñu liggéey bi ñuy def ñu bañ cee gis suñu bopp lu dul ñu gis ci maam Ahmadou Ndack Seck ndax xam nañ ni buñ ci gisee maam Ahmadou Ndack Seck gis nañ ci seexu Ahmadou gis nañ ci maam Imaamul Mahdiyu gis nañ ci Seydina Seex Tijaan Sariif radiyallahu anhu gis nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy dinga ci gis sa borom bi tabaraka wa taala moo tax ñu jël suñu buntu def ko muy maam Ahmadou Ndack Seck te yow yaa ko fi nekkal daara ji di faral di def weeru koor wu jot bu teroo ñu fas yéene barkeelu ci njàngum alxuraan ak ci salaatul faatihi yàlla dogal mbooloo mi nga xam ne ñoo séq daara ji nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu amoon benn jumtuwaay boo xam ni ci lañ doon jokkoo ngir loolu ñu bëgg a liggéeyal maam Ahmadou Ndack Seck mën a sont te jumtuwaay boobu tuddoon WhatsApp ci sosuwaayu walla ci ki nga xam ni moo ko sos di sëriñ Mbaye Alpha mu sëriñ Abdou Aziz bu cabe ñu koy ñaanal yàlla lépp loo xam ne nii jëlee nañ ko ci yiw bala cee kenn jot suñu borom sa sëmbërtal ko ci ba mu doy sëkk ndax ñu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax lii nga xam ne am nañ ko tey boole njabootu maam Ahmadou Ndaak Seck gépp nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew muy jëflante bu rafet wax dëgg yàlla ci loxoom la ko suñu borom jaarale te mom kat boko ko wër ci mbolo mi amana man nga ko baña gaaw gis bu ko defee muy lu jafé ndax taxawal lo xamni ne gëreem nañu ko kenn ku ne di ni won séwo ñu ni ci sa tour la ne te yow ngay làqatu yow mi ko def yombul waye limuy muy yalla nako suñu borom feeñal bu ko defee niñ ko doon defee at mu jot moy jang liñu mën ci alquran ngir def ko maam ahmadou ndak sek ñu jàng fanweeri kaamil ak juróom benn def ko addiyey maam ahmadou ndak Seck waaye ñu jàng ci ay salaatul fatiha lim bu takkoo takku mu toll ci ñeenti téeméeri junni ak juróom-ñaar fukki junni ak benn ak ñetti téeméer mooy quatre cent soixante onze mille trois cent salaatul fatiha mbokki taalibe yi dajale nañ ko ngir def ko addiye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye teg ko ci sa loxo nga tegal na ko ci loxol maam Ahmadou Ndack Seck mu jaarale ko fi mu war a jaar ba mu egg ñu fas yéene tamit at mu jot lu mu néew néew ñu jël ci suñ ñàq barkeeloo ko ci yan bi nga xam ne moom la yàlla yan ndax barkeelu rek lay doon daaw yàlla àtte na bi ñu fi ñëwee li ñu amoon a ko su néew bariwul tolli woon ci ñeent fukki junni nga ñaanal ñu ñu ñaan nga ñaanal ñu pour suñu borom yokkal ñu ko ñu lay wax ne la ñaan yooyu nga ñaanaloon pour suñu borom yokku na nangu na ndax li ñu amoon a ko su néew muy ñeent fukki junni ren am na ñu ñaaram dañuy ñaan nag nga ñaanal ñu waxuma la muy mu mu muy fulandi waaye muy muy gën a ful ba mu doon ay yooni yoon yu baree baree bare te xam nañ ni boo ko ñaanale suñu borom nangu ko ndax kenn ku ci nekk ci ñun ci daara ji yaa ngi yëg sa bopp ci liggéey bi ngay liggéey li maam Ahmadou Ndack ndax kenn ku ci nekk xam nga fa nga toll woon bi ngay soobu ci liggéey bi xam nga fi nga toll fi nga toll nii léegi muy lu jara sante yàlla ñu ànd nag njaboot gi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi te jàpp ni gox bu ne ñu jógee fa ñëw ngir siyaare si la sëriñ Mouhamad Basir Mbuub lim na ci léegi waa na Thiénaba fas Kofé macha allah ñooñu moom ay royuwaay lañu waaye tamit waa daayira ansaaru diin bu localité ba jaayaan ñoom i tamit ñëw nañ ci jotaay bi waa Canaba Béer ñoom i tamit ñëw nañu ñuy profité ci occasion bi di leen ñaanalaale parce que bu ñu tuddee Canaba Béer nag di leen seppi nag koo xam ni wax dëgg yàlla ku am Pastef ci liggéey bi la muy oustaz Maxet Siis ma nga nekk fële ci Allemagne du nelaw guddi ngir liggéey bi jëm kanam soxnaam mi ngi fi ak délégation bi ñu àndal Canaba Louga ñi ngi fi sëriñ Alpha Sylla mi ngi nuy toog ñuy opasas au passage Serigne Badara Ali Dia moom tamit ma nga ca Cenaba Allemagne Cenaba Fass koo fi tudd nañ ko ni Serigne jamono ñu ni tembe Temunek mu nekk ambassadeur maam Ahmadou Ndak Seck fële ca Espagne yaakaar naa ne mi ngi ci ngana lekk euh, euh, Serigne Baye Diop di sa porte parole ñu wax la ji moo waral loolu kon ñu ñaanal ñu nga ñaanal ñu rek liggéey biñ ci bëgg suñu borom def ci lu gën a jëm lu gën a suñu jort di gën a sant yàlla ginnaaw ñaan yooyu ndax dañ ni la whatsapp lañ yoroon doon ko utiliser ngir moyen de communication bi ñu dem ba whatsapp gis nañ lu gën loolu ñu ubbi telegram tudde ko telegram daara soppee ma ahmadou ak sek waaye tey jii tey ñu am gan goo xam ni gan gu bes teq la mu nekk télévision en ligne boo xam ni gi rek ko tax te liggéey bi ñooñu doon liggéey dañoo bëgg mu liggéey liggéey bu ko gën a kawe ñu andi ko ngir nga ñaanal ñu ci ngir fa ñu bëgg mu yegg fa mu yegg fa te mooy samp Shamsu TV du ñuy sax doom du ñu sax rakk dañ naan doom ci Thiénaba TV ndax ñoom tamit liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko ci Thiénaba fu ci waaye toll dégg nga ko gisal nga ko sa bët mm-hmm. macha allah bu ñu ñëwee doon seen doom doon seen rakk war nañ leen a jaajëfal ci liggéey bu rafet boobu ñu daan ànd ak ñoom ndax luñ fi mus a andi rek wane nañ ko ci àdduna bi yëpp bañ gis ko ci turu sëriñ Alpha mi nga xam ne mooy directeur Sénégal général bi waaye ñuy teg wax ji ci kàddu Serigne Diame Gueye mi nga xam ne nii mooy directeur programme bi bu ko defee rek xëy na wax ji liñ ci yéene lépp mënuñu ko génn waaye daal ci tënk mooy Baye Cheikh sa njaboot say taalibe say doom ñoo dellusiwaat ci sa kanam di rot ci sa kanam di su sukk di ñaan nga ñaanal ñu suñu borom defal ñu barke ba li ñu bëgg a liggéeyal maam Cheikh ba suñu borom defal ci lu kawe suñu jot xanaa di nuyu ñi nga xam ne nii mooy ay acteurs yi ne ci dëkk bi te di sa njaboot bokk ak ñun liggéey bi Mouhamad Basir doon ko lim ku lim rek desal waaye dinañ ci tudd nag Baye Talla Dia mi nga xam ne nii moom moo ñuy defar riyaadu saalihin altine ju jot lim nga ko soxna maam yaasin sekk ndeysaan moom mi nga xam ne jàngal nañu laxdar yi ba mu jeex mi ngi ci asmaa yooyu di ñu ko jàngal sànq tudd nga soxna bi rasul si la muy ay soxna yu am pas-pas yóbbaale góor ñi nga xam ni tamit ñi ngi liggéey liggéey bu am solo dañu fas yéene liggéey boobu yépp ñu daan wax ñu di ko dégg ñu fas yéene ko won nit ñi ñu di ko teg seen bët loolu rek mooy li nga xam ne nii xëy na bu bu Serigne Mar jëlee dina mën a gën a yaatal waaye daal ci tënk mooy li nga xam ne moo ñu fi indi woon tey ñu dellusiwaat di feddaliwaat suñu rek xanaa rek di ci teg ni maam Ahmadou Ndak mooy suñu sëriñ mhm. yàlla ñu ko jox mooy suñu njariñ nañ ko jàpp nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ci fiir incha allah ci waxtaan wu am solo bi nga xamee ni euh, yëkkati na ko yëkkatil ko daaray soppe maam Ahmadou Ndak Euh, di ko jaajëfal waaye jaajëf jooju jëm ci képp koo xam ne rek membre la ci euh, daara jooju euh, kàddu gi nag du ñu guddal dañuy jël kàddu gi jox ko coordonnateur daara yi soppee maam Ahmadou Ndak muy El Hadj Mar moom tamit mu yëkkati ay kàddu yoo xam ne mu ngi jóge ci daara ji waaye ma fàttali ni bu maar daanele bu ñu Baye Cheikh mayee ndigal ñu jàng xadmul xuraan bi ndax ñoom wàcce nañu ay kaamil ci daara ji Euh, bu ko defé rek mbégte moomu yalla na yalla wisaré ko ci aduna bi euh, ba ñëpp jot seen wal kon ñu jël kaddu gi jox ko Elage Mar alhamdulilahi wal akhiratu lil muttahin wala udwana ila la salimin mbokki julli di ginaaw bi ñu santé yalla ñaan ko mu julli ñu ci sangu-sang yi Muhammad no ngi sant suñu ñaari wayjur di wax jërëjëf jaaraama jarool ak Mawlaaya Abul Abbas Cheikh sayyid Ahmad Tidiane Sarif di ñaanal Mam Ahmadou Ndak sek yalla yalla fayal ñuko yalla yalla fayal ñuko di ñaan képp ku ko wax yalla yalla yàlla teral saay rek baatin di wax xalifa général bu ba serigne cheikh Ahmed Tidiane sek yalla fi yag lool ta and ak wér xamna amadou sar Sarr neena suma dikke dina yaatal waaye dañu jema teunk ndax wax deug yalla liñ programé won moy jotaay bi yem ci kër ga waaye dem nañ ba ci biir xol nit ñi xajuñ ci salle bi señ goore mu ni li fo ñu dem kër gu mak bu ko defé ñu wax mu ñew fo lañ programé won ndax euh, si koor lañ nekk tam ak euh, yaram yu jaga yoyu euh man tout temps sumay wax sama samay wax dama koy jëmali ci bir daara ji daara soppe maam dak sek euh barke démb Mahdi ci sem ma toj nan ma yow dal bëgg nga léegi fo dam sa discours ci daara ji nga koy def mané ko la man sumay wax yëg-yëg laay waxee li sama sama xol lol lay wax parce que lutax man daf ma leer ni man objectifu daara ji leer na si man nañ ba ma xam bu baax a baax a baax daara ji fan lañ jógee xam naa fan lañ toll xam naa fan lañ bëgg a yegg ni mu leeree si man dama am yaakaar que ni bu leeree ñëpp si ñoom ñoom ñëpp bu ñu leeree noonu seen xel euh, dina ñëw ànd ak ñun si liggéey bi. Basir boobu daf ko junju léegi daara soppe Imam Ahmadou Ndack Seck Telegram benn yitte lañ am amuñu ñaar amuñu ñett benn yitte lañ am mooy liggéeyal Serigne Thiénaba Mame Ahmadou Ndack Seck te mu leer nañ. te amuñu si nëbbu amuñu si parparloo amuñu si lenn benn yitte lañ am képp koo xam ne yaa ngi ci saal bi maa ngi la koy xamal képp ku may seetaan à travers le Thiénaba TV wala Samsu TV nga xamaale ko daara soppi ma am ak Seck benn yitte lañ am mooy ana naka la ñuy def ba li nga xamante ni moom dafi maam bàyyi woon ñu mën a jël liggéey boobu fépp foo xamante ni yegg na ko ñu mën ko fa yeggale ndax mag ñi wéy nañ seeni wàll wéy nañ ñi fi des dañuy gunge ñun ñoo fi desandi mais bu ñu yàlla boolee si njabootu maam Amary Ndack sekk ñu koy sagoo tout le temps ku si nekk lala la maam Ahmadou Ndack Seck defal mënuloo ko fay mais wasul àq nag ku nekk mën nga ko yéene am na solo lool waaye dina am solo aussi tam la nga yéene nga jéem a def ay acte lii nii di Shamsu bi muy lu bees loo xamante ni bi ñëw nañ fekk fii euh, ñoo xam ne ñoom ñoo ñu fi jiitu gën ñoo xam yoon wi dañoo ñëw rek boot seen ginnaaw jàppale leen si liggéey bi du leneen. parce que foo dem kër goo dem am na fa te ñi ko fa def ñaari sànq lañ yor ñaari loxo ñaari bët benn gémmiñ ñaari nopp comme ni nga ko yoree luñ la rawee lu nekk amul loo xamante ni yàlla daf la leen ko dencal bàyyi la pas-pas lañu lay ëppale ak dogu ak volonté du leneen bëri na fu nit di toog naan nangam di jàmbat fekk la muy jàmbat la ko war su ko defoon la muy jàmbat dafay dañ kon mbokk yi nañu gën a góorgóorluwaat te dëggu si li ñuy def waaw doomu aadama lépp loo xamante ni yaa ngi si di si dab boo si boo si dëggoo rek ca na si ko war a defee yàlla dina def incha allah loolu am parce que Sam TV bi maanaam biñ ko nosee yàggul biñ ko nosee yéene bi ëpp na lii mais biñ ko nosee yàggul mais mbokk yi am dogukan incha allah bu ñu yóbbu sukkaru koor bëgg nañ télévision bi demaale am na ñu ne ah loolu temps bi xat na de mais ñu gëm ko yalla daf na loolu nek tay nit ki lepp lo gëm tamuy deug sew yalla daf la ci jàppale kon mbokk yi way ku wa sa kër wala ku may seetaan nga taxaw xola sa bopp yow analal la la mam ahmad dak sek defal way yow itam analal nga defal maam dak sek da fay am solo li ngay xol ci ki nga dendal bala nga koy xool si ki nga dendal dang koy xol sa wet ba nopp ndax yow sa waru gar yang koy def si xadara bi wala deet baña nax sa bopp man nga nax doomu aadama mi mënoo nax sa bopp bëri na loo xamante ni nit mi ngi naa mënuma ko fekk dafa jéemul sax mais bu jéemoon da koy def kon bu ko defee bëgg nañ lii di Telegram bi lii di Shamsu TV képp ku ñuy seetaan nga jël ko def ko sa yëfu bopp maar moomu ko Papa Ndiaye moomu ko Modou Sa Diaar moomu ko kenn moomu ko Serigne Cene ba moo ko moom kenn moo fi Serigne Cene ba bàyyi see am na Tidiane Seck ñun benn jubluwaay lañ am muy Mame Ahmadou Ndack Seck te lu kenn man ñaara ko ko dàq lépp lu Telegram bi daf tey ña fa nekk bu ñu amoon ñeneen ñu leen ci fekk si liggéey bi day gën a yaatu day gën a bëri waaye résultat bi aussi tam day gën a bëri loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax wax ji mën nañ ko wàññi te jiital jëf ci wax dëgg yàlla am na foo xam ne boo fa tolloo wax yi moom mën nga ko wàññi nga liggéey nag parce que euh, liggéey moom ci ngay amee résultat bu ko defee rek yàlla na ñëpp dégg ñu te ñëpp ñëw fekk suñu si liggéey bi bu ko defee rek lii nii lu ñu doo ndoorte la rek mais incha allah boo xoolee tey mën naa ko jël exemple ci Sénégal bu ñu jëlee tele bi fi gën a mag tey jàpp naa ni kenn nit moo ko moom kenn nit moom moo ko sos mais Telegram bi ñaata ñoo fi nekk te olof nee na lu lu kenn man ñaar ko ko dàq. kon loolu dañ toog ñu xalaat ci lu kenn man ñaar ko ko dàq waa léegi kenn kee taxawal benn benn télévision mais ñun ñuy mbooloo kon war nañ mën a war nañ mën a taxawal benn télé war nañ mën a taxawal lu gën a yaatu loolu mais dañ gën a nekk benn. nañ gën a nekk benn ku si nekk am nga naanuwaay ku si nekk am nga ku la jox salaatul faatiha ku si nekk am nga koo xamante ne mooy sa la waaye ñooñu ñëpp maam Ahmadou Ndaak Seck mooy seen sëriñ te maam Ahmadou Ndaak Seck Baye Cheikh Ahmadou Tidiane Seck moo ko fi nekkal kon ñun lépp lu xew ci xadara bi incha allah lépp lu luñ si mën a def ci euh, communication ci médiatisation dinañ ko def waaye li nga xamante ne nag mooy as tuut suñu yàlla dénk ah wax dëgg yàlla suñu mënoon defal ñëpp dinañ ko def waaye jàpp nañ ni.

day feeñaat bu baax a baax a baax ci kër gi mais tey war nañ mën a dem tey ba am télé boo xamante ni bi wax dëgg yàlla bu ñuy wax bu ñuy wax tey euh, information bi jàllul tele boobu dañu si doy ba keneen ku nekkul si kër gi sax lu mu bëgg mu siiw da koy jaarale fii kon bu ko defee ñun loolu rek mooy suñu bëgg-bëgg naka la ñuy def ba liggéey bi gën a yaatu naka la ñuy def bëgg mu gën a jëm sa kanam te kenn rek mënul mënul lépp kon bu ko defee ñu ngi leen koy bàyyiloo xel di di woowaat ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw am na foo xamante ni bëgguma fa dugg parce que euh, yenn saa yi nga teew si barab bala ñu lay jox kàddu la nga programme yi sooy wax doo si wax lenn waaw parce que moment bi euh, li may yëg ak euh, li li may imaginer ak li may gis sama kanam li wérti woor mooy lii di Shamsu TV man li ma yëg ak li ma gëm suñu amoon fukki nit ñuy yëg loolu gëm loolu incha allah balay jëwan si heure bi dinañ fi taxawal télévision boo xamante ni faaleetuñu benn télé lépp luy bëgg mu siiw loolu dinañ ko siiwal loolu nag ñu si woo ñëpp suñu sang yi lépp lu ci waay mën a jàppee na si jàpp Shamsu TV bi li ñu bëgg bu fekkee fukk la benn bi lañ amagul kon képp koo xam ne mën nga si dugal sa wërsëg nga dugal ko si képp koo xam ne mën nga ñu ubbil bunt pour bu ñu fa jaaree tele bi gën a mën a yaatu ñu ngi la siy déglu moo xam ci biir la moo xam ci bitti jaajëfal nañ ñëpp mbooloo mi fi teew duñ dugal si lim yàlla yàlla defal lépp lu jub yàllaa ko jubal lu si dëng dañ koy jéggalu bu baax a baax te xam ni jub rek lañ si na moon jombul euh, njàmbe xamna lu bari ci kër gi xamna lu baaxa baaxa ci euh si euh groupe bi nu muy luci euh, lu ci jub euh, lu ci deung man na am mu ko jaajeufal na ñepp fepp way joggé gis nañ la te yalla rek moo tax nga koy def yalla na fay la ñu ngi santane ñepp di gërëm ñepp di wax bay si amati tidiane sek yalla fi yag lool te ànd ak wër mam ahmadou ndak moy suñu sëriñ yalla nako jox muy suñu ndariñ nañ ko japp nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ci fi ndak sek ci appel bu yaatu bobu mu lancer Euh, wane mbokku taalibe yi waaye won tamit téléspectateurs yi wala internautes yi seetaan ni leen mbir mi moom suñu mbir lañu ñun ñëpp kon képp ku ci mën a dugal loxo nga dugal ci loxo Baye Cheikh euh, ñu ngi lay ñaan tamit xam naa yaa ngi koy def waaye nga ñaanal télévision yi nga xamee ni say télévision lañ muy Samsu TV ak Canaba TV ba lépp loo xam ni nisar nañ ko liggéey ci kër gi ñu seen doole matale ko bañ mën koo liggéey ndax xëy ci canaba lañuy xëy ci canaba lañuy ñuy gont bu ñu sañoon daal euh, liggéeyal canaba ba ñëpp xam ni liggéeyal nañ canaba loolu tamit mooy moom la waa daara soppe maam Ahmadou Ndack nisër ba indi yaatal lii dama koy tuddee yaatal yaatal ndax bari na loo xam ne ñun yéene woon nañ ko ci mën a dem fa wala man koo yaatal foofa te xañ na suñuy moyen wala suñu sax xataay mënuñu koo may waaye tey euh, ñoom bu boobaa xañ na buñ jaaree côté bi euh, ñoom Samsu TV ñun waa Canaba TV ñu jaar côté bi bu boobaa dinañ mën a matale Canaba te loolu rek moom mooy sabab bi euh, ba mu ko bañ ko déggee jëkkee dégg ñun waa Canaba TV am siiw lañ ko def ndax xam nañ liggéey bi ni mu toll démb heure bi démb leer na Mar Diop ña nga kaneen sanc doon couvrir conférence boo xam ne soxna Ndumbe moom moo ko doon def kon partout dans le Sénégal la ñuy dem Euh, tey nag bu demee ba mu yaatu ba ñii mën a jaar nii ñii mën a jaar nii loolu ak cant lay nekk parce que fisuk canaba rek moo ci am solo euh, kon daal ñu gën a tàllal loxo yi euh, Samsu TV tàllal na ay loxoom canaba TV tàllal na ay loxoom nga ñaan ngir mu gën a yaatu ngir mu gën a dox kàddu gi nag ginnaaw bu ñu jàngee xatmu bi day dem ci mu nekk kàddu xalifa bi Baye Cheikh ku mu waxloo ci jataay bi moo yëkkati kàddoom waaye bala moo loolu waaw joxoñ na ma sëriñ aadama Seck kon moom mooy yëkkati kàddu Baye Cheikh Ahmed Tidiane waaye Baye Cheikh yéen waa soppe daara soppe maam Ahmadou Ndak teeru na leen ak njobootam euh, ci wetam Serigne Adama Seck mu Baye Taalaxaar mi nga xam ne moom la jox kàddoom euh, bokk na ci ñi leen tatagal euh, ginnaaw bi ngeen àndee ñëw waaye Serigne Gora Seck mu Baye Cheikh Tidiane moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne ni ànd naag Baye Cheikh teeru leen waaye ànd ak tamit suñu baay baay Serigne Talla Gueye Seck mu Baye Cheikh Ahmed Tidiane moom tamit mu ngi nii toog bokk na ci ñi nga xam ni ànd na ak Baye Cheikh waajuram euh, dalal leen Serigne Souleymane Gueye di président fédération des daayira Tidiane de Thiénaba ànd ak chargé de la communication muy borom yaaram tamit bokk ci yéen parce que yëf yi sotti ci la ak def ci moom tamit fekkee na jataay bi xam naa ni moom euh, moom moom faaw liggéey bi nag ngeen jaxasoo nag waaw ndax bu ñu nee président fédération ak daara soppee maam Ahmadou Ndak loolu beneen liggéey ci biir boo xam ni bu ma ko junjee sëñ aada dina xam li may wax bu ko defee euh, liggéey bi benn la waaye seet naa ci mbooloo mi sëriñ Pape euh, El Hadj Pape Maajoojo euh, Pape Abdoulaye Mboup mu ngi ci jataay bi ànd ak sëriñ Mansour ak ñi mu àndal sëriñ Cheikh Ndaw macha allah waaye bàyyi Ibrahima Alpha mu Baye Taalaxaar sekk moom tamit mu ngi ci jataay bi ak Baye Serigne Ngusaan nga xam ni bi ngeen ñëwee ba léegi moom mu ngi dem ako dikk rek ngir programme bi baax Baye Ngusaan Euh, yàlla na yàlla fay la ci barke Seydina Mouhamed saa sallam ak képp ku nekk ci saal bi rek te bokk ci njaboot gi euh, te tudduma la mm, yóbbaale Baye Cheikh yóbbaale la géew ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu jël kàddu gi jox ko sëriñ aada euh, ginnaaw bu ñu jàngee xat ba pare sëriñ góor a kon bisimilah billahi samin alim min asheytaan rajim la hawla wala quwata illa billahi alali alazim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din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 بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونهنا على ما قال ربنا ومولانا من الساهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم أنفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المصلات وكفر بتلاوتي على سيئاته إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز على ما كان في تلاوته من سهو ونسيان أو تهريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على خير ما أنزلته أو تحجيل عند تلاوته أو كسل أو سيق للسان أو وقوف بخير وقف أو إدخام بخير مدقم أو إسهال بخير بيان فاكتب منا على التمام والكمال والمعزب من كل ألهان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا أقوه مال أهله والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبسارة والأمانة ولا تقتم لنا بالشر ودلالة وتقيان ونبهنا قبل منايا منا من القفلة والكسلان وأمنا من عساب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبير وجوعنا يوم البعث واهدي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وزق الميساننا بالعسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحساننا وذهاب قمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة نعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوهسة ومسائبنا في الوهدة ومتبعنا في سلمة ودليلنا في الحيرة ومنقصنا في الفتنة واعصمنا به من السيق والأهواء وكيد الأهداء يا رحمن يا رحيم اللهم أقتم بسهادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واقرن بالعافية قلوبنا وآسالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على سنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا وثقة بك سقرنا واهتقالنا وأمن من الجوع والقاف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونورا ما طلعناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وزرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومسائقنا خاصة ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم أنزل من نصر الدين واقصل من خسر المسلمين اللهم أنزل من نصر الدين واقصل من خسر المسلمين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 صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا بها بأقصى الخيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يالنا يالا اجلن سونو يينو يرافيدينو ام ييب يالنا نيو يالا موسال سي ليپ لوي لري يالنا نيو يالا ماي غودو فان اك ويري يارام اك موي يرافيد يو اندك سوتروس ادنا اك الاخره يالنا نيو يالا ماي باري ليك بركل يالنا نيو يالا داخال شيطان اك مصيبه اك بلا اك فان يو غات اك ديي نياو سي بركه القران الكريم اك بركه مام يو باخيه jërë ngeen jëfati yal na lii yàgg te yokk yal na leen yàlla jàppale moo di yal na nu yàlla jàppale loolu laa ci doon wax rek di àggale ndax ëf ñu ngi sant yàlla bu baax ñu sant yàlla bu baax sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di jiital ci nuyoo bi Baye Cheikh Ahmed Tidiane. di jiital ci nuyoo bi suñu xalifa bi Baye Cheikh Ahmed Tidiane. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal yàlla. yal na yàlla gën koo wéral. yal na yàlla gën koo wéral. yal na yàlla gën a guddal fanam. yal na yàlla gën a guddal fanam. mu yàgg ci xadara maam Amary Ndaak bi. mu yàgg ci xadara maam Amary Ndaak Seck bi. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. waa telegram bi nga xam ne ñoo sabab jotaay bii tey. nee na waa telegram bi nga xam ne ñoo sabab jotaay bi tey. Eh, ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di nuyu bu baax. di teg seen nuyoo ci loxol El Hadj di jël nuyoo yooyu teg ko ci seen loxo coordonnateur El Hadj Mat mu yóbbaaleel ñu ko ñëpp. mu yóbbaaleel nu ko ci waa daara yëpp. waaye ñu seppee ci sëriñ Alpha Mamadou. waaye ñu seppee ci sëriñ Alpha Mamadou. mu sëriñ Abdoul Aziz Seck bu Cabe. mu suñu bàyyi sëriñ Abdoul Aziz Seck bu Cabe. taxawaay yu rëy yi xalaat yu rafet yi. taxawaay yu rëy xalaat yu rafet yi. suñu ko tuddee moom ñi ko mag ak ci cekkeen nag ñëpp dina leen mën a yóbbaale. bu ñu ko tuddee ñi nekk ñu ko mag ci cekkeen ak ñëpp sëriñ Abdou sëriñ Alpha dina leen mën a yóbbaale. ndax taxawaayam bi mu taxaw ci groupe bi moo waral loolu. ndax taxawaaye bu rafet bi mu taxaw ci groupe bi moo waral loolu yi. ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Serigne Mouhamed Seck moom Serigne Souleymane. Serigne Mouhamed Seck bu Serigne Souleymane Seck. ak Serigne Ibrahima mu Baye Talla ak Serigne ibrahim mu bàyyi Serigne Talla Xaar. ni ko Mouhamadul Bachir li mu woon léegi rek. ni ko Mouhamadul Bachir li mu woon léegi noonu rek. ñu bokk ci telegram bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu. ñi bokk ci telegram bi yëpp daal ñu ngi leen di nuyu. di nuyu it sunu yaay yi ñëw léegi ñoom it. waaye nag di nuyu sunu yaay yi ñëw léegi ñoom it. ñoom it war a jooxal lu mel nii. ñoom nag ñu war a jooxal lu mel nii. ci Baye Cheikh. ci bay Cheikh muy sunu yaay soxna maget Fall muy sunu yaay soxna maget Fall nga xamni ni bu koor gi tero nga xamni nak bu koor gi tero ci la commencé di di woote suukaru skoor si ci la commencé di wote suukaru skoor si waxtu waxtu wuñ na fi la ba daaneel rek waxtu wuñ na fi la ba rek dina ko dina ko soññee wat mo tok nonu and ak mbolo mi mi andal mo tok noni ak mbolo mi mu andal lu melni rek moko ko lu melni rek nak moko ko wa daayira daayira ci na ñomit am tank yu mel nonu ñomit amé tànk yu mel noonu. ànd ak Serigne Souleymane Gueye. ànd ak Serigne Souleymane Gueye. ñu waroon a jaar ci Baye Cheikh. ñu waroon a jaar ci Baye Cheikh. ñoom it jooxal lu mel nii. ñoom it jooxal lu mel nii. mu mel ni kon mbir mi daje na. kon daal mu mel ni mbir mi daje na. waaye lépp rek yal na yàlla def ko muy tawfeex. waaye lépp yàlla ko yàlla def muy tawfeex. yàlla faj aaju yëpp. faj aaju yëpp. Serigne Gora jërëjëf. Serigne Gora jërëjëf. sunu mag la. sunu mag la. démb rek laa laa koy wax ci kër Baye Cheikh. rek laa koy wax ci kër Baye Cheikh bi daayira bi doon ziar si. muy daayira tund jandeer bi doon ziar si. dañoo dañoo indaale nii ngeen def lañ def. nii lañ def rek ngeen nii ngeen def rek lañ defoon. dañoo wàcce kaamil yu takku. dañoo wàcce ñoom it kaamil yu takku. xat xatmu bi ñu indi jébbal ko Baye Cheikh. xatmu bi ñu fa yéene ko jébbal Baye Cheikh. laata Baye Cheikh Tidiane di génn. laata Baye Cheikh Ahmed Tidiane di génn. ñu ñëw ni ñu dañoo bëgg bu Baye Cheikh génnee ñu jàng mu bi. ñu ñëw dayoo ñu dañoo bëgg bu Baye Cheikh génnee ñu jàng xatmu bi. man leen ndax indaale ngeen xat xatmu. man leen ndax indaale ngeen xat mu ñu ni déedéet. ma ma ni sëñ Gora. ma ni sëñ Gora. ah gars yi nee nañ dañoo bëgg nga jàngal leen xatmu gars yi nee nañoo bëgg nga jàngal leen xatmu ndax yor nga xatmu ndax yor nga xatmu sëñ góor ni ma xatmu mokkal naaw sëñ góor ni ma xatmu moom mokkal naaw dinaa leen ko mën a jàngal dinaa leen ko mën a jàngal te booba Baye Cheikh génnagul te booba Baye Cheikh génnee bi Baye Cheikh ñu jébbal ko xatmu bi ñu jébbal ko xatmu bi mu dey sëñ mu dey sëñ góor a mu dey sëñ góor a ni jàngal leen xatmu ni ko jàngal leen xatmu bi biñ ma joxee téere bi biñ ma joxee téere bi man it yëguma woon loolu man it yëguma woon loolu ma joxaat ko sëñ góor a ma joxaat ko sëñ góor a ndeke loolu mooy ndigalul Baye fekk loola nag mooy ndigalul Baye Cheikh waaw moom moom moo ma moo ma jox pour ma jàng xatma ma bi man ma yëkkati ko delloo ko mooy ma yëkkati ko delloowaat ko li ci moom la mooy ndigal ak nag ak dëppale la loolu ak dëppaloo la fajuk aajo la tamit fajuk aajo la it yàlla na ko yàlla defit ci jotaay bi yàlla na ko yàlla sotti ci jotaay bi xatmu mu fi jàng xatmu fi faj na ajo yëpp faj na yàlla na yàlla faj aajo yàlla na yàlla faj aajo yi Baye Moussa Ndiamé Baye Moussa ci taxawaay ñu ngi lay jaajëfal lay jaajëfal di la nuyu di la nuyu yaag alaaji Góora Sarr yaag alaaji nga toog na ca ginnaaw ma nga toog na la ca ginnaaw alaaji Baye Talla Gueye alaaji Baye Talla moom tamit bokk ci biir moom it bokk ci biir am ci mu amit moom it taxawaay yu rëy moom it am ci taxawaay yu rëy sunu rakk la sunu rakk la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñu ngi bu baax bàyyi wuñu kenn bàyyi wuñu kenn alaaji Ngusaan Fall bàyyi alaaji Ngusaan Fall nekk ci wetu Baye Cheikh nekk ci wetu Baye Cheikh ak taxawaayam yu rëy ak taxawaayam yu rëy moom it ñoo ngi koy joxal nuyoo moom it ñu ngi koy joxal nuyoo Pape Abdoulaye waaw Baye Cheikh dolli na ci. nee na na ci ci ba noppi di jëwriñu tool yi. nee na ba noppi nag di jëwriñu jëwriñu tool yi. waaw lu wa lu aju ci wàllu tool yi Cheikhu Canaba. lu aju ci wàllu tool yi Cheikhu Canaba yi. ci loxoom la ko bàyyi seex teg. ci loxoom la ko teg moom mu am ci taxawaay bu rafet. mu am ci taxawaay bu rëy. kon ñu ngi koy nuyu. kon ñu ngi koy nuyuwaat. Pape Abdoulaye Mbuub. Pape Abdoulaye Mbuub. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu. yaag euh, njabootu Ngusaan maa jooja. yaag njabootu Ngusaan maam maa jooja. Mouhamadul Bachir moo leen moo leen fi jiitu. ay taxawaay yu rëy. am ci taxawaay yu rëy. waaye bokkit ci telegram bi. waaye bokkit ci telegram bi nag. ci taxaw taxawaay yu rafet. di ci taxaw taxawaay yu kon ñoo ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kon yéen it ñu ngi leen di nuyu bu baax. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. bala may fàtte rek. bala may fàtte rek. Baye Cheikh telegram bi. Baye Cheikh telegram bi. nga gis ñu toog nii. ñii nga gis ñu toog nii. dañoo jëmmal euh, mbooloo mi rek. dañoo jëmmal mbooloo mi rek. waaye ñu bari ci ginnaaw. waaye ñu bari nag ci ginnaaw. soxna yi ñoo ngi leen di nuyu. soxna yi sëriñ baa kenn par kenn. kenn par kenn. dee nañ ni ñu day ma day nañ ma ni ma ki nga xam ni moo doon yëkkati kàddu ki nga xam ni moo doon yëkkati kàddu alaaji maar alaaji maar Jóob dafa am yóbbante woon dafa am yóbbante bu ñu ko yóbbante woon ci Baye Cheikh ci Baye Cheikh xelam fattu xelam fattu ba ba jotu koo àggale ba jotu koo àggale mu déy ma ko mu déy ma ko mooy njaboot gi nga xam ni muy njaboot gi nga xam ni njabootu Seexu Canaba lañ njabootu Seexu Canaba lañ bokk ci telegram bi bokk ci telegram bi nekk ca bitim réew nekk ca bitim réew di fa yëngatu di fa yëngatu nga xam ni lépp lu xew ci fii seen jëmm da waaye seen loxo waaye seen loxo ak seen i xalaat ak seen xalaat seen lépp teew na seen lépp teew na ñooy sàkku ñaan ñooy sàkku ñaan ku nekk xam na ni bitim réew ku fa ne ku nekk xam na ni bitim réew bitim réew ku fa ne soxla nga ay kayit soxla ngay kayit yoo xam ni yoo xam ni dina la mën a jàppandal nekk ga foofa dina la mën a jàppandal sax nekkandi foofa dina la jàppandal it ngay mën a ñëw di dellu dina jàppandal ngay mën a ñëw di dellu na ko bëggee na nga ko bëggee ñoo ngi sàkku ñaan Baye Cheikh ñu ngi sàkku ñaan ci nga dolli leen ñaan nga dolli waat leen yàlla jàppandal leen kayit yooyu jàppandal leen kayit yëpp ci barke yonent bi ci barke yonent bi kenn ku ne ak réew ma mu ne nag kenn ku mu ak réew ma mu ne nag ay réew yu wuute la ndax nag ay réew yu wuute la waaye ñoom ñëpp yàlla na yàlla defal leen liñ bëgg rek waaye ñoom ñëpp seen bëgg-bëgg yàlla na ko yàlla faj lii am na solo lool lii daal daa am solo laa ko wax ma ni démb laa koy wax ma ni wafdu xawlaan wafdu xawlaan ñoo njëkk a ziyaare yonent bi ñoo njëkk a ziyaare yonent bi ñoo nga woon ca màkkatal mukarram ña nga woon ca màkkatal mukarram dañoo daje woon waxtaan dañoo daje woon waxtaan fekk damaa wax ni fekk sëriñ du ko woote. ab sëriñ du ko woote. taalibe koy woote. taalibe koy woote. yéen ñii. yéen ñii. Baye Cheikh woowu leen tey de. leen. ni ñëw leen ziar si ma. ni ñëw leen ziar si ma. yéen a nas. yéen a nas. waxtaan. waxtaan xalaat. xalaat ba xam ni da ngeen ko war a ziar si. ba xam ngeen ko war a ziar si. ngeen ñëw ziar si. ngeen ñëw ziar ko. ñoom noona lañ defoon. ñoom it noona lañ defoon. dañoo toog Makka. dañoo toog Makka. yonent bi ne Madina. yonent bi ne Madina. ñu ne rafetul de. ñu ne rafetul de. yonent bi fi mu ñu féete. yonent bi fi mu ñu féete. yàlla teg ko ci suñu kanam. yàlla teg ko suñu kanam. te bala ñu koo gis rek. koo gis rek. daa woote ab xare. daa woote ab xare. ñu door koo mën a gis. ñu soog koo mën a gis. rafet na nag ñu waxtaan. rafet na nag ñu waxtaan. àndandoo. àndandoo dem ma Munawwara. mun Madinatul Munawwara. ziyaare ji ko ziyaare ji ko. ba ñu déggoo ca kàddu ya. ba ñu déggee ca déggoo ca kàddu ya. ñuy dem ay gëléem la ñu war. ba ñuy dem ay gëléem la ñu war. ba ñu demee ba àgg Madina. ba ñu demee ba àgg Madina. fekk fa yonent bi. fekk fa yonent bi. ba nuyonteeg moom. ba nuyonteeg moom. dañ ni ko ñun dey. ni ko ñun dey. ay jullit lañ. ay jullit lañ. gëm nañ yàlla. gëm nañu yàlla. dëggal nañ tamit ni. dëggal nañ tamit ni. yow yàllaa la yónni. yow yàllaa la sunu tànk yi nag. sunu tànk yi. ziyaar si la rek. ziyaar si la rek. moo tax ñu jóge Makka. moo tax ñu jóge Makka. ñëw Madina. ñëw Madina. keroog yonent bi xol bi sedd na keroog yonent bi xol bi sedd na mu ñaanal leen ñaan gu rëy mu ñaanal leen ñaan gu rëy ni fa amma masirukum ilayya fa inna li kulli xutwatin xataaha bairu ahadikum xasanatun fi dunia wa xasanatun fi l axira keroog yonent bi da leen a wax ni nee na keroog yonent bi daf leen a wax ni gëléem yi ngeen war gëléem yi ngeen war jóge màkka jóge màkka jéego yi ñu doon jéego jéego yi ñu doon jéego genn gëléem gu ci ne genn gëléem gu ci ne benn jéego bu mu jéego benn jéego bu mu jéego ba bi muy agsi fii ba bi muy agsi fii yiw lay doon ci àdduna yiw lay doon ci àdduna yiw lay doon ci àllaaxira yiw lay doon ci àllaaxira te yéen mbooloo mi yéen a koy moom te yéen mbooloo mi yéen a koy moom foofa la ziyaara dotti ko foofa la ziyaara ba dotti ko booba ba tey nag booba ba nag ni ku ziyaara ziyaara ji ab sëriñ ku ziyaara ji ab sëriñ bu boo xamante ni moo wuutu yonent yi boo xam ne moo wuutu yonent yi ci xam-xam ba ci xam-xam ba ak melokaan wa melokaan wa yàlla yéegale ca maqaama bële yàlla yéegale ca maqaama yooyee yewaa wafdu xawlaan amoon yewaa wafdu xawlaan amoon yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na leen ko yàlla defal sang sang bu tedd bi nee na sang bu tedd bi yàllaa dogal yàlla moo dogal muy muy muy muy muy muy sécurité muy sécurité ci ci ci nit ñi. ci nit ñi ci ak dundam. ci ak dundam. yonti yàlla nuux. yonti yàlla nuux. ci ak dundam. ci ak dundam. ba mu wootee. ba mu wootee. woote ba yàgg lool. woote ba yàgg lool. ñu bari wuy wuyu wuñ ko. ñu bari wuy wuñ ko. ñu dema dem ba di ko sabote. ñu dema dem ba di ko sabote. ah nu yàlla def ak nit ñooña. nan la yàlla def ak nit yàlla da ko defarloo gaal. yàlla daf ko defarloo gaal. ba mu ko defaree ba mu defaree gaal ga. ba mu defaree gaal mu ne ko ku ca dugg dina mucc. mu ne ko ku ca dugg mucc. waaye ku ca duggul. waaye ku du mucc bisu tey doomi nuux doomi nuux bokkoon na ca ña weddi woon bokkoon na ca ña weddi muy kanaan muy kanaan ba leen di yàlla di alak ba leen di yàlla alak yàlla da ko caa boole yàlla da ko caa boole yàlla dani asamaan si yàlla dani asamaan si lu ma la dénkoon cim ndox lu ma la dénkoon cim ndox sotti ko sotti ko suuf suuf loo loo denc cim ndox loo denc ndox ball ko ball ko suuf di bal suuf di ball asamaan di wàcc ndox asamaan di wàcc ñoom ñëpp ñu daal di al ñoom ñëpp ñu al yonti yàlla luut yonti yàlla luut nitam ña nitam ña ba ñaawteef gu rëy ga ñu di ko tuddee ñaari tur ñu koy tuddee ñaari tur ba ba mu ñaaw ba mu ñaaw yàlla ba mu leen di alak yàlla ba mu leen di alak xoolu ci Luut de daa jeqi suuf si rek la féete woon kaw la féete woon kaw mu dëpp ko mu féete mu ko mu féete ñoom ñëpp ñu al ko ñoom ñëpp ñu al waa kër yonent bi waa kër yonent bi yéefar yi newoon Xuraysi yéefar yi newoon Xuraysi aggoon nañ ci mbonte gu toll foofu aggoon nañ goo xam ni xam nga ku dem banaan xam nga ku dem banaan allahumma allahumma in kaana hada in kaana hada huwa alxaqu min indik indika huwa alxaq min indika fa amtir fa amtir alayna alayna xijaaratan xijaaratan yàlla yàlla lii yonent bi woote lii yonent bi woote su fekkee dëgg la bu dee dëgg la ko yónni yaa ko tawal ci ñun ay doj tawal ci ñun ay doj xam nga foofu la mbonte mën a yàgg la mbonte yàlla xool ba yàgg yàlla xool bu doon jëmm juy muñ dañ naan daa muñ bu doon jëmm juy muñ dañ naan daa muñ mu ni yonent bi mu ni yonent bi am nañ chance am nañ chance li fi yéeg yaa ngi dund ci seen biir fi yéeg yaa ngi dund seen biir naa la lool rus naa la de duma leen alag mukk duma leen alag loolu yonent bi doo nga ko yonent bi doo nga ko am loolu yonent bi dong ko bi dong ñu ne nag kon ñun. ñu ne kon ñun. dundug bi. dundug yonent sécurité la ci ñun. sécurité la ci ñun ndem la ci yéefar. ndem sécurité la rawatina ab jullit ah rawatina nag ab ñu ni nag. ñu ne. yàllaa wax ni. yàllaa wax ni. wa maa kaana allahu. وما كان الله ليعذبهم ليعذبهم وانت فيهم وانت فيهم في ياغي ياغي في رك في ياغي ياغي في دوما لين بوغال اه دوما لين بوغال ني ني بو يوننتي بي دامي ني ني بو يوننتي بي دامي كون سيكوريتي اماتول كون سيكوريتي اماتول يالا ني اخاكاي يالا ني اخاكاي امنا لوم لين باي امنا لوم لين باي لو خامني في ياغي ياغي سي جاب لو خامني في ياغي ياغي سي جاب دوما لين بوغال دوما لين بوغال موي استغفر الله موي استغفر الله ميديكامون بوبو نا ميديكامون بوبو موم لا باي شيخ مي يور موم لا باي شيخ مي يور فومو توك فومو توك جوخ طالب جوخ طالب kon loolu buñ ci saxee ñun kon loolu nag buñ ci saxee muy astaghfirullah muy astaghfirullah néew na mu dem ci ay jàng néew na mu dem ci ay jàng wala gam wala gam wala lu mën a doon wala ndaje bu mën a doon wax ba jeexal wax ba jeexal te dénkaanewul astaghfirullah te dénkaanewul astaghfirullah ndeke yàlla ko dénkoon yonent ndeke yàlla moo ko dénkoon yonent ni ko fii ak sa nit ñaa ko yore ni ko fii ak sa nit ñaa ko yore sag dund sag dund ak sag faatu ak sag faatu ñoo yam ci ñoom ñoo yam ci ñoom sécurité lañ yam sécurité rek lañ yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla defal yonent boobu nag yonent boobu moo jox maulana cheikh ahmad tidiane chérif moo jox Maulana Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Chérif. sunu sunu Serigne. sunu Serigne. wirdu salaatul fatiha bii. wirdu salaatul fatiha bii. yë Cheikhu Tidiane. Cheikhu Tidiane. dénkaane astaghfirullah. dénkaane astaghfirullah. Cheikhu Tidiane moomu na. Cheikhu Tidiane moomu. moo moo jox sunu Serigne ñun tamit. moo jox sunu Serigne ñun it. Seydil Mujahid. Seydil Mujahid. maam Ahmadou Ndak. maam Ahmadou Ndak ndax silsila bi boo ko toppee. ndax silsila bi boo ko toppee. te Cheikhu Tidiane yi rek la jëm te Cheikhu Tidiane rek la jëm. maam Amari Ndak it. loolu rek la dénkaane. loolu la dénkaane moo tax taalibe Thiénaba fu mu ne. moo tax mu ne. dégg ñuy zikar nga dégg ñuy sikar taf seeni nopp taf seeni nopp gëmm seeni bët gëmm seeni bët yëkkati ca kaw yëkkati ca kaw astaghfirullah astaghfirullah la yonent bi dénkaane la yonent bi dénkaane woon Cheikhuna Tidiane dénkaane Cheikhuna Tidiane maam Amari Ndaak dénkaane maam Amari Ndaak dénkaane loolu dong lañ yor loolu dong lañ yor kon fu waay mën a ne kon daal fu waay mën a ne na nga xam ne loolu mooy sa gàllaaj mooy sa gàllaaj suba suba ak ngoon ak ngoon nang ci farlu nang ci farlu yàlla na yàlla dooli leen a taxaw yàlla na yàlla dooli leen a sàmm yàlla dooli leen a sàmm ci barke yonent bi barke yonent bi lii nag ngeen def. lii nag ngeen def. muy Shamsu TV bii. muy Shamsu TV bii. ndollent la. ndollent la. lillazina. lillazina. ahsanul xusna. ahsanul xusna. wa ziyaada. wa ziyaada. bu ngeen rafetalee ba mu rafet. bu ngeen rafetalee ba mu war ngeen a dolli. war ngeen a dolli. dinaa koy faral di wax de. dinaa koy faral di wax ma am na koo xam ni. ma ne am na koo xam ni. day wuutu. day wuutu. ka mu wuutu. ka mu wuutu. lam ko bàyyeel. lam ko bàyyeel. du ci yàq dara. du ci yàq dara waaye du ci dolli dara. waaye du ci dara. am koo xam ni. am koo xam ni. day wuutu. day ki mu wóotu ki mu wuutu. lim ko bàyyeel. lim ko bàyyeel. du ko mën a yor. du ko mën a yor. waaye waaye du ko yàq. wala du du ko mën a yor. wala du ko mën a du ca dolli. du ca dolli waaye day sàggan sax. waaye day sàggan ba wàññi ko. ba wàññi ko waaye ku ñu dénk mbir nag. waaye ku ñu dénk mbir. nga laxasaayu. nga laxasaayu takku. takku ba dolli ca. ba dolli ca am nga am nga kon yéen lii ngeen def. kon yéen waa Daara Maam Omar Ndack telegram sëriñ bi nee na lii ngeen def. yokkute la yokkute la. yal na yàlla jëmee ko kanam. yal na yàlla jëmee ko kanam. te ki tax ngeen def ko. te ki ngeen def ko. muy maam Cheikhou Thiénaba. muy maam Cheikhou Thiénaba. ñimewul bor. ñimewul bor. daa am lu mu fay. am lu mu fay. wax naa ko ci fédération bi. wax naa ko ci fédération. keroog ma ni. keroog ma ni. diine ji de. diine ji daal. maam Amari Ndak. maam Amari Ndak. maam Cheikhu Amadou ko bindoon leeta. maam Cheikhu Amadou bindoon leeta. mu tas daaraam. mu tas daaraam. jéggal soxnaam. jéggal ay soxnaam. dénkaane njabootam. dénkaane njabootam. génn dëkk ba mu ne woon. génn dëkk ba mu ne woon. dem wuy ji maam Cheikhu. dem wuy ñu ànd di jihaat ci tooli xare yi. ñu ànd di jihaat ci toolu xare yi. ba àgg ci euh, xare bu ñuy wax sàq. ba àgg ci xare bu ñu naan sàq. muy xare bu métti. muy xare bu métti. keroog ca lañ tiire maam Amari Ndaak bal. keroog ca lañ tiire maam Ahmad Ndaak Sekk bal. ca dënn ba ca dënn ba. moo tax ba ma ko waxee dama ni. moo tax ba ma ko waxee dama ni. diine jii. bu doon jar deret. bu doon jar deret. maam Amari Ndaak kott ko jënd. maam Amari Ndaak rek moo ko jënd. ma ni moo tax taalibeeb Cenaba. ma ni moo tax taalibeeb Cenaba. fu mu a ne. fu mu man nga koy wan ay ay ay ay taax. man nga koy wan ay taax. ay alal ay alal di ko ko taaral ko ko taaral mu naan la aha waaw waaw ha leen dong ko ñor leen na ko ñor bu guddee bu guddee mu fanaani ci seexu fanaani ci seexu can nit nag nit nag li mu am li mu am da koy xam da koy xam këri diine yëpp këri diine yëpp alal falu leen alal falu leen bu dee alal bu dee alal saa soo génnee saa soo génnee di nga gis ku la ko ëppale fop di gis ku la ko ëppale te nangulul yàlla dara te yàlla dara mooy li yàllay joxe fu mu ko neex mooy li yàllay joxe fu bu dee bu dee aw tur la. bu dee aw tur. bis bu ne. bis bu ne nga gis ku la gën a doon gone. nga gis ku la gën a boo bu dee jigéen la. du muur bopp ba. du muur boo xefee sax mu wat ko. boo xefee mu wat te àdduna bépp ko xam. àdduna bépp ko xam fu mu génn ñu ni diwa ngi. ngi. wutuñu wutuñu tur bi wutuñu tur. li jafe. li jafe. te du jeex. te du jeex. te du rab. te du mooy wàllu yàlla. mooy wàllu yàlla. këru diine yëpp. këru diine yëpp. loolu lañ fay wut. loolu lañ fay wut. kon yéen. kon daal yéen leen tax a jël seen alal. li leen tax a jël seen alal. bàyyi seen i kër. bàyyi seen i kër. jéggat ay kilomètres. jéggat ay kilomètres. ñëw ba ci Seexu Canaba. ñëw ba ci bàyyi Seexu ngeen jox ko seen addiya. ngeen ko seen addiya. tàllal ko seeni loxo. tàllal ko seen i loxo. lenn dong la. lenn dong la. muy wàllu yàlla. muy wàllu yàlla. yàlla nag. yàlla nag. ku ko wut na nga ko war a wute. ku ko wut na nga a wute. ko fañ ko war a wute. wute ko fañ ko war a wute. nga ñëw fekk ko fa. ñëw fekk ko na sa xel dal na sa xel dal booy dellu booy dellu di nga ko yóbbaale di nga ko te kër Seexu Ceenaba gi yàlla ngi Seexu Ceenaba gi yàlla ngi fi kàddu yi gudd na kàddu gudd na bari na bari na waaye sunu xol a sedd waaye sunu xol a sedd Baye Cheikh Baye Cheikh ku muy jox ndigal ku muy jox ndigal di la wax loo di la wax loo war ngaa xam ni war nga xam ni lim lay wax loo lim lay wax loo moo la ko gën a mën moo la ko gën a mën ñëpp a ko seede ñëpp a ko seede jàngalekat la jàngalekat la mbooloo mum toog mbooloo mum toog balaa dem balaa dem doonte benn minute la doonte benn minute dina fa joxe xam dina fa joxe xam-xam te it wax naa ni. te wax naa ni. li ko taalibe yi di andil. li ko taalibe yi ñu indi ko. faw ñu indi ko. yàllaa ko yàllaay tàggat xol yi. yàlla mooy tàggat dama ko wax barki dem ma ni ko Baye Cheikh. wax naa ko barki dem ni ko Baye Cheikh. te ma ni ko taalibe yi. ma ni ko taalibe yi. ñoo la bëggal seen bopp. ñoo la bëggal seen bopp. ñenn ñu ne. ñenn ñu ne. fa ñu ne. bu ñu ne. buñ sañoon nga fekk leen. buñ sañoon nga fekk leen. te ni ko yàlla def la. te ni ko yàlla def la. Baye Cheikh lu mu am na koo bokk ak nit ñi. Baye Cheikh lu mu am bokk ak nit ñi. yërëm njaboot gi. yërëm njaboot ku feebar. ku feebar. moog yow ci hôpital moog yow ci hôpital ba ku am soxla ku am soxla lu ca man mu def ko lu ca man mu def ko su mënul su mënul xool fa am xool fam am mu taal oto mu wuti ko mu taal oto wuti ko ku jàng ba pare ku jàng ba pare yor say lijaasa yor say lijaasa te war a liggéey war a liggéey amoo liggéey amoo liggéey mu jóg mu jóg lii de la fi nekkee lii rek la sàmm diine ji sàmm diine ku ngénte mu taxaw ku ngénte mu taxaw ku faatu mu ñaanal la ku mu ñaanal la ku woote mu wuy si la ku woote mu teraanga bu nekk mu def teraanga bu nekk mu def ko ca donob seexu canaba donob seexu canaba oyoful oyoful neexul neexul daa mit daa fi mu ne nii fi mu ne nii fi mu toll ci ay at fi mu toll ci at lu ko gënaloon toog ca néegam bële waaye bu jógee tey bu jógee keneen yëkkatiwaat keneen yëkkatiwaat léeg ñu génne ko dëkk bi léeg mu toog ba guddi ñu fëgg ko ñu yi sonné ku ne di woote ku ku defee ni noflaay xamoo lu bari xamoo lu bari yonti yàlla aadama ak daawuda ku ci ne ku ci ne xilaafa la yàlla xilaafa waaye bala ko yàlla yenee waaye tiit ba da ngaa tiit koy bind xaraf ya day tàqali ko kon khilafa dafa dis kon xilaafa daa di waaye bàyyi Cheikh yàlla mi meuna a yanu bàyyi Cheikh yàlla mi meuna a yanu te attan te attan tay taxaw du daanu tay taxaw du daanu tay dundu du de muk tay dundu du de yàlla na la yanu lépp yàlla na la yanu lépp gunge la ba ca kanam gunge la ba ca kanam ak barke yenen bi barke yenen bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñu ngi baalu àq ñu ngi baalu àq ñëpp di baalu ak di baalu ak ñep yàlla nañu yàlla boole yàlla boole assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Shh. dul suñu yaay soxna Maguette Fall bu ko defee mu yëkkati seen kàddu rek bu ñu paree nag tàllal loxo yi Baye Cheikh ñaan ñaan ngi nekk genn nee na mu ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. ginnaaw bi ñu sante nee na ginnaaw bi ñu santee yàlla julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. ñu bàyyi seex te man ci yàlla fekk mën fa dajale ñun yëpp toog. waaw nee ñoom ñu ngi jël seen nuyoo yëpp dajale ko teg ko ci loxol bàyyi Cheikh mi ñu fi dajale. maa ngi sant yàlla bu baax nag. nee na mu ngi sant yàlla bu baax a baax. yàlla indee boole na mbooloo mu tedd mii nu fi yàlla dajaleen. na ñu ngi sant yàlla nag bi nga xamee ni yàlla dajale na leen ak daara soppe maam Ahmadou Ndaak ñu ñëw fekk leen ci te ñoom ñu bokk ji waaw suñu xel dal na suñu xol sedd na. nee na suñu xel seen xel dal na te seen xol tamit sedd na guy. lépp luñ fi am ci aw yiw yàlla nañ ko bokk ak nee na lépp loo xam ne génn na ci aw yiw yàlla nañ ko bokk te joxe bii nu joxe ren yàlla bu mu sunu mujjug joxe nee na te joxe gii nga xam ne moom la ñu joxe seen suukaru koor yàlla bu mu nekk seen mujjug joxe ñoo ngi ñaanal mbokk yi fi teew yépp nee na ñu ngi ñaanal mbokk yi fi teew yépp suñu mbokk kër may sa njaake yi suñu mbokk kër may sa njaake yi macha allah jàmbaar lañu lool nee na macha allah ñoom ay jàmbaar lañ di sant waa kër Mamour Pouye nee na mu ngi sant tamit waa kër Mamour Pouye ñu ngi ci jataay bi jawriñ yi soxna Caba Dieng. soxna Caba Dieng jiite leen. waaw ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla. ñu leen di sant di leen ñaanal yàlla. ñaanal waa Touba Gueye. ñu ngi ñaanal tamit waa Touba Gueye. noonu la ñu takkoo ñoom soxna Nogoy Jaw moom itam. ñoom tamit ñoom noonu lañ takkoo ñoom soxna Nogoy Jaw. ak Xadi uh, Saw. ak soxna Xadi Saw. di ñaanal waa Thiénaba gépp nag. nee na ñu ngi ñaanal waa Thiénaba gépp. nee ñu takkoo ni la waa ba takkoo. nee na ni ñu takkoo tamit ni la waa Thiénaba takkoo. yàlla yàlla dolli ñu jàmm. yàlla na yàlla dolli ñu jàmm. dolli xéewal. dolli xéewal. def xéewal ci réew mi. nee na def xéewal ci réew mi. ak wérle. nee na yàlla na yàlla def wér ak wérle. sàmmal nu njabootu kër ak gu àll. nee na yàlla ñu yàlla sàmmal njabootu kër ak njabootu àll. sàmmal nu Baye Cheikh Ahmed Tidiane nee na yàlla na ñu yàlla sàmmal Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck. sàmmal nu njabootam nee na sàmmal ñu njabootam gépp. lépp lu làmb ci moom yàlla yàlla aar ko. nee na lépp loo xam ne làmb na ci moom yàlla yàlla aar ko. man de fu ma nekk fu ne. nee na moom de fu mu nekk. Baye Cheikh. nee na Baye Cheikh. kuy wax ci moom lenn. nee na kuy wax ci moom lenn te kenn waxul ci moom nag. waaw te kenn waxul ci moom. te kenn waxul ci moom. nee na loolu doy na sant yàlla. nee na loolu doy na sante yàlla. sant suñu borom. nee na te sant suñu borom. di sant ñaanal sama góor gu baax ga El Hadj Serigne Diop. nee na di ñaanal nag góoram gu baax ga Baye El Hadj Serigne Diop. may ñaan ci mbooloo mi. nee na muy ñaan ci mbooloo mi. nañu ma ko ñaanal. nañ ko ko ñaanal. saa borom xare ko àjjana. nee na sama borom xare ko àjjana. lépp lu mu am àjjana. nee lépp lu mu am àjjana. yal na ci yàlla boole jullit yëpp. yal na yàlla boole ci jullit yëpp. boole ci Ibra Fatou Seck. boole ci Baye Ibra Fatou Seck. ak mboolem ñum fa fekk. boole ci Baye ak ñëpp rek ak mboolem mboolem jullit yëpp. jullit yëpp yi dem rek barke Seydina Mohamed. waaw loolu moo doon kàddu yi. sallallahu alayhi wa sallam. astabaal ci Touba Gueye. nee na astabaal ci Touba Gueye du manqué lenn. du manqué waaw du manqué lenn. ci biir ci biir. kàddu yi daal jotagul na. nee na kàddu yi jërul guddal. jotaay bi yàgg na jotaay bi yàgg na.

ah du ko saay. ñoo ko si doo ko na yàlla moo am fay yàlla na leen fayal boppam. nee na yàlla képp ku koy lebal waroo jàpp ndax xam nga ni dina la fay ba wis la yàlla fay leen ba wis leen. te boole ñu ko ñun ñepp ak bépp julit ci barki alquranul karim wa kon ñu talal loxoy dugal yene yi comme niko bacha bàyyi di waxee euh, bu ko defé ñu ñaan lu ñu ñaan yalla ko yalla nangu ci barki sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bacha bu ko defé amin ya Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim kon ñu déglu li nga xam ne ak ñaan la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan mooy jaas yi julli kon nag buñ nekk na war a gëm a gëm te kan boo ko jàngoon te gëmoo yi du la jëriñ waaye boo ko tiimoon yéene tiim ko rek ni bismillahi rahmani rahim yi te bi koy laataa wax nga yéene woon ci ne yéene naa muy kaamil boo xam ne dama ko jàng bi salaam naa ko julli jullit yëpp yi dundi ci ngeen bismillahi rahmaani rahim yi ñoom joxaat naa leen bii lii boo ko defoon rek moo tax toujours mooy wax dama leen naa fatiha falafa naa si ku ko mën nga def ko ku ko mënul te mën fatiha képp nga def ko ku mënul te mënul amin ngay wax amin amin moom waxoon naa ci waaye dañoo sonn moo tax de waaye li ma si la waxee ma fargaatal ko ci asalaamu nga xam ni buntu la ba biseet ku mun mu xëy rek def wax ko ak foo mën a toll gis nga ko te boo ko waxee mooy ci wér gi yàlla ji nga xam ni adduna àllaaxira ak àjjana lépp ci asalaamu aleykum bu nangoo kooku ñu ubbi ñu may la ko ba noppi am la may la ci ndigal nga wér boole ci ay wax ko rek daal di am àjjana nan ko jàng ba mën ko bu baax a baax baat bi ah salaamu alaykum la kum assalaamu alaykum bu ko kenn réyloo jàngaat ci keneen bu fekkee xam nga ni yaa koy yàq ndax boo ko yàqee da ngay perte fii fileetul dara lu ma yàlla ngeen dee ah, ëpp waaw moom a way daa moom loolu boo dee yàq baat bi rek xam ne ni loolu nga am loolu ngay ñaan waaye yàlla na na yërëm yow ndax la nga yéene rek nga lay fay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañu moo ne إنما الأعمال النبوية اللي قبل يف يف يوم أنا له بني بني أي شيء لي ما تعمل لي من إلى من نجيك من نجيت يني وإنما لكل إمر إديتم يلا كن كنك لقيا لي يوم maanaam waa la mu yéene ba ñaan ko loolu la ko yàlla yàlla na ko li gën a yàlla gën a bëgg bokk na ci booy ñaan nga yàlla yàlla na nga nu may jàmmi àdduna ak àllaaxira bu yokk suñuy fay ak suñuy wér ak yàlla na ko defal mën a defal te yërmande ci rek yoroo yoroo dara ndax yéen nga téere yi bu ci laqal jàng ñaan bu muy rek ci di julli ci biir rahmati seyel ba waaw na ni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mafiratu loolu daa gudd waaye eh, lebi nee na foofu mooy dara yëpp day dara yëpp mooy day nuyoo te lu alaykum lu ne ci lu lay ajal astaghfirullah mu ñu wax itam waxuñu la ngay wax tafar laa tafar laa tafar laa man loolu jàll ko ngeen diw ma ne ki ma waxee xëy na am na fu mu ko euh, xam ngeen nu ngeen koy waxee loolu léegi la xamoon astax firullah astax astaghfirullah boo ko mënee nag bët bu seen nga fexe ba wax ko ni mille neuf cent quarante sept fois ku ko mën ngay bàyyi ba guddi boo ko mënee baax na waaye deux heures et demi jëm kat trois heures fi la li ñaa ba gën a gaawe li jàpp mooy yàlla nangu loo ñaan mu nangu la ay yooyu gën waaye yi ci des it da ngay def par ñaar ñaar ak par ñett ñett rek bu ak boobu jot nga ko benn yoon mille neuf cent quarante nga lu mu lay may ginnaaw yàlla lu mu lay njëkk a njëkk a may juróom benn garaatañ ci yoo xam ne ci ma ci jot a xam ne alkaan boo ci xamee bañ di la ñee jay di la tuddee leneen comme lii ngeen may wax naa bàyyi Cheikh borom alxuraan moom ma ko tuuti laa ci xam xam nga maag ñëpp ak ñu woy ay kaamil ay téere ci jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko woy ba defee ni ñoo ci monsieur yi nee na xarfan la cafet la la la tolloon nga yor sa sas koog ni xarfan nga def ko minal baax yi ci ba ci géej boo ay asee benn yoon ndax yi yëpp ba Màkka ak yi wër adduna ginnaaw bu adduna jeexee da ngaa defee ne sa kaw suuf si jeexal na noonu la alxuraan mel ñi koy Moustapha da wax ba soo bàyyi waaye nag nga gën bañ a wax musu ñu nee na loo woy woy woy woy wax jikko koy ba defee ni yaasin ne la wóor ni ka dee bi kam yàgg mu ma bee yam ci waxul dara yéen yàlla la yéen fudal la ko rek yéenam la jox la kon nan kon nan jàng assalaamu aleykum ku nekk na ko jàngal ku yéene ay àdduna ak àllaaxira ak yéema ne xam nga lu muy jëkka di baal la bakkaar heure boo ko waxee te ñu dégg sa xol amatoo bakkaar set nga wécc loo joxe mu daal képp ku di julli bu tudd yàlla noo ko mën a tudde te yàqoo baaxee te boo ko yàq yi te muy dégg sa xol yërëm na la bàyyi la nangu la da ngay daal di am xaalis boo xam ne da lay jot bu set nga am loo xam ne doo doo da ngaa daan am doole lii affaire ne ñaw ah ay daal man de gis naa oto bu ñu ni ma moo ko moom suñu dëkk bi itam ak kaara nga fa turam lañ ci gore te yomb ko astafurlah mu gën a foor te gën ko yomb yàlla yàlla amiin ñi rafetal baax ak yi mel ni moom ba dëkki àjjana yàlla ñi dee ñëpp ñëpp yal na leen yàlla yóbbu àjjana ñi ngeen def itam yàlla ko fi defaat ay yoon yi yoon li may wax lépp dama gëm rek yal na ko yàlla jugal te ngeen baal ma li ci des waaye li ngeen fi wax ak li ngeen fi def ci lu baax yalla ko yalla nangu way mo ko xalaat amin ya rabbi fatiha fala kay naashi idel yi ni ñi ko yépp ak yow ak yalla lay ko ko ñaanal ko nek ay bir amin wala taqum ala nag mu dem amin bismillah man na ko def ku mënul féetewul amin képp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 بسم الله على ما لما إله وسلم xaar yi léegi waaye boole naa ci li leen laaj ay alxuraan yi ci alxuraan yëpp ñaataa ci ci jeexe ci ci naas yi am nañ ma ko fi wax ñu bari waaye aaya yi yu jeexe ci naas yi tàmbalee ba naas yi ñaata la ñu ñëwee gëstu gars yi gëstu ji ko rek. amiin. amiin. li ñu wax dañ naa bu doon leneen deen day waaye alquran du xeewi di jeex baat yaa ngi nii danañ suru la ci min asraari faatiha yi ci soroy soroy faatiha yi bismillah rahmaan rahim dafa garam amin amin amin amin amin الكرم من كونه كان يبني كوكب الفلك تقربا بإمكانه كبد تنقل ساكتا تلكي إنك شيطان

Euh, daara soppe maam Ahmadou Ndaak ñoo ko doon def euh, fii ci kër gu mag euh, ci Canaba ci kanamu Baye Cheikh Ahmed Tidiane doon defaale aussi lancement wu Samsu TV mu nekk loo xam ne lu am solo la dégg ngeen jataay bi mbégte yi nga xamee ni macha allah moom moo fi feeñ ci kàddu waaye mbégte yu fi feeñ ci kaw tagg Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam waaye mbégte yi nga xamee ni macha allah moom moo fi feeñ Euh, depuis biñu commencé bobu ba euh, légui mu nek lo xamni lo am solo la xana di ñaanal mbokk téléspectateurs yi ñu jàkkaarlool euh, di leen wax rek ni yalla yalla def jamm ci barke mohammed sallallahu alayhi wasallam ci caméra TV ñu ngi ak talagnes job. Diop ci caméra Samsu TV ñu ngi ak Diallo machallah Diallo Amadou mom tamit diko ñaanal gudd fan ak wér machallah li nga xamé ni dor nañ ko doré ko fi ci salu kër gu mag yalla na def mu sawan bawan. Euh, comme ni ma koy yàgg a waxee waaye Moussa a Gueye reporteru Thiénaba TV tey moo nekkoon en même temps reporteru euh, Samsu TV doon liggéey liggéey bu am solo euh, fii ci saalu kër gu mag di wax rek ñi nga xamee ni ñoo ngi ñuy topp boobu ba léegi jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla def mu saawaan baawaan ci biir Thiénaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.